comme section ba ci am ndax ginnaaw bi mu demee ci tournée économique bi nga xam ne doon na ko def fële ci euh, euh, dans le sud du pays ou bien dans le nord du pays gis na ni am na ñoo xam ne yoroon nañ ay morceaux dafa wax ak ñoom ñeneen gis naa leen kon donc mu mel ni contradiction ndax mënoo nekk ci am réew euh, tey bu ñee manifestation nga ne du fi amee tey bu ñee morceaux nga ne doo gis morceaux il a fallu que mu am benn euh, benn euh, événement des émeutes yoo xam ne am na fa ba ñenn ci ay sénégalais ñàkk seen bakkan mu doo ko génn defaat benn euh, discours defaat benn adresse à la nation daal di xam ne ni dégg na ndaw ñi Euh, euh, ci ci président boo xam ne tey jii euh, nemmeeku nañ ko ci ñi fi mas a jaar ñëpp dañ daan bàyyi askan wi ñu naqar dañ doon bàyyi askan wi ñu takk seen ay morceaux yu rouge manifester fësal seen naqare danañ boo aussi boo naree dem sax bay wax li la metti da ngay ragal ndax am na ñenn ñoo xam ne jàpp nañ ni am na ñu ñuy jël ngir rek ñu ñu ñu ñu ñu fitnaal leen ngir rek ñu bañ a wax seen seen seen seen naqar gis nañ ñu xew fële ci Ourossogui yi ay sénégalais yoo xam ni doon ñoon manifesté wu takk seen morceau rouge ñu bool leen bankaan leen duma leen bañ boo waxee sax ñenn ñi nga xam ne ñoo bokk ci nguur gi ñu ne loolu amul te les images en parlent les images montrent des atrocités yoo xam ne jàpp na ni ay nervi lañ mënuñu wax nag nervi yi fii lañ bokk wala fii lañ bokk ndax amuñ ci certitude mais tey jii koo xam ne sénégalais la nga jàkkaarlu ak sa président di ko wax loo naqari vraiment war nañ la bàyyi nga ni ah man lii moom a naqari président xam ni sénégalais yi kat am na ñenn ñoo xam ni am na lu leen naqari ndax euh, sénégalais yi ñu ñoom ñëpp and ak nga xam ne moo di président de la république maa ne mm-hmm. voilà comme ni nga ko waxee Abdou fi nga daanelee rek lay jël ñëpp mënu ñoo ànd ak benn néeg ku ci nekk da xëcc jëmale sa bor ku ci nekk ak ki nga faral donc ku ci nekk ak euh, am li nga xamante ne euh, askan wi ñoom ne nañ ko nangu maanaam wàllum dictature ñoom moo boobu dañ ko ko jagle ki nga xamante ne mooy le chef de l'état donc nag mu doon ay cadre yi nga xamante ne jamono jii nii nag euh, boo xoolee nag élève étudiant yi nga nekk si université Cheikh Anta Diop bu Dakar ñoom ñëpp loolu lañ nekk di wax si biir naan dictateur la dictateur la ndax ñoom loolu lañ jàpp waaye rek euh, pour euh, jox leen comme euh, information bañ duggee ci biir itam am na ñi nga xamante ne ay ndawal ay étudiant nekk université Anta Diop bu Ndakaar teg nañu leen loxo di leen duma duma yu métti yi nga xamante ne jamono ji métti na loolu li nga xamante ne mooy takk dari parce que jamono ji nee nañ ñu ñuy def du yoon parce que jàpp nañ seen droit lañ nekk donc nag am na ay étudiant yi nga xamante jàpp nañu leen ba pare di leen duma di leen dugal ngir yóbbu leen fële ci commissariat euh, bu central bu Ndakaaru donc nag euh, mu am keneen ki nga xamante ne sànq yaa ngi ko doon wax ci say kàddu mi Abdou Gueye Gueye Xurum Xurum xaa moom itam jàppoon nañ ko waaye rek ñu ngi xamal comme information ñu nee ñu carrément que bàyyi nañ ko waaye da moom tamit dafa jëlee si loolu ay gaañ nga parce que dañ ko doon góor dóor ba côté nag gauche bi dafa am ay euh, tucc tucc yi nga xamante ni am na ko jamono ji mu ngi hôpital loolu la ñoo comme information mais dinañ ko vérifier bu ko defee ñu mën leen a jox lu si gën a leer incha allah mais Abdou euh, jamono ji euh, dëkk bi jax na. métti na ñun dañ doon wax le 23 juin bu 2011 11 mais instant yi ñu ngi naan le 25 juin 2021 euh, est-ce que l'histoire euh, day tax tey ji bu 2020 25 juin ñu fàtte 21 23 euh, juin 2011 je sais pas mais en tout cas métti na te ndaw yi jamono ji xalaatuñu sax bàyyi benn yoon takk der yi bàyyi benn yoon état du Sénégal def loi bi nga xamante ne mu ngi ko bëgg a tëral fële ci assemblée nationale bu ñu xoolee démb ñi nga xamante ne ñoom ñooy parti opposition bi ñoom itam ñu ngi doon amal li nga xamante mooy ay conférence de presse ay point de presse mais rek ki nga xamante ne instant yi nii mooy kii rek Abdou Gueye kurum xurmu xaaj jàppoon nañ ko waaye ki nga xam ne tamit mooy Clédor Sène moom it mu ngi xamle ne carrément ak Guy Marius Sagna duñu xaar benn yoon duñu may benn yoon li nga xamante ne mooy état bu Sénégal ñëw euh, di def li nga xamante ne mooy lu ni mel mais rek ak euh, mbokk yi internet Sénégal set boo leen gisee ba tey xeer yaa ngi gën a yokk étudiants yi ñu ngi gën a renforcé wu di jubali si biir waaye rek euh, li nga xamante ne mooy takk der yi ñoom itam ñu ngi yokk ay renfort di rek def ay tiir si li nga xamante ne mooy si biir université bu Ndakaaru donc mu mel ni rek euh, situation mu ngi nii ñu nekk aux alentours nag mooy ay jaaykat ak euh, étudiants nga ñëwoon pour jàngi si ñoom ñu ngi dem di dëpp di ñibbi. tranquillement di def marche parce que oto yi mënuñoo jàll mais rek ñi nga xamante itam ñoo nekk di jaay aux alentours jamono ji ñu ngi lalli nank nànk di arrêté seeni euh, commerce te boo xoolee loolu tamit day wàññi bu baax li nga xamante ni mooy économie bu Sénégal donc alentour université Cheikh Anta Diop ak si biir métti na loolu lacrymogène yi mu ngi euh, jax kenn mënatul nooyi euh, bët yu bëri wex na xat kenn mënatul gis saxaar si daal envahir na fi nga xamante ne mooy euh, aux alentours de l'université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru donc mu mel ne rek ki nga xamante ne mooy Abdou Khadre Mboup moom itam mu ngi ñëw euh, fàttali leen rek li nga xamante ne moo xewoon démb ci point de presse yu nga xamante ne amaloon nañ ko 16h ak bu 22h nga xamante ne boobu moo gënoon a doy waar ndax euh, urgence woon conférence de presse boobule. donc euh, Abdou li nga xamante ne amoon na démb di conférence de presse d'urgence boobu nga xamante ne 22h guddi woon na lool mais askan wi dem nañu wuyu ji li nga xamante ne itam mooy étudiants yi kontaan ci. ba tey jii tax euh, liñ doon mbëbët ñoom di ko ñaan askan wi jamono ji bëri na la parce que ñu ngi xamal ci information que ni ñi nga xamante ne ñoo nekk Saint-Louis dañoo xëy fajar taal seeni oto ñëw ñi nga xamante ni itam ñoo nekk Bambey ëtti aussi ñu ngi fii si li nga xamante ne moom mooy euh, université euh, Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru waaye assemblée nationale nag pour accéder fa problème la. waaw euh, doy na waar doy na waar lool ndax gis nañ euh, takk der yi ñu ngi euh, ñu ngi dérouté ñi nga xam ne ñooy jóge Dakar pour accéder rek ci fi nga xam ne moo yoon bi jëm foire jëm fële ca hôpital bu Fann ngir rek xaj na dañuy bañ li nga xam ni moo di xeer yi nga xam ne moo jóge ci université daal di leen di mën a dal mais am nañ benn xabaar nu jot muy mel ni Abdou Mbaye aussi. daal dina addu daal di wax ci li nga xam ne moo xew jamono ji mu ne le Sénégal est désormais à maanaam tey ji euh, Sénégal mi ngi ci yoon woo xam ne ci aw ñal la nekk buñ ko doon wax ci wolof mooy ñal mooy yoon woo xam ne amul fu mu jëm te jàpp na ni fa mu jëm daal vraiment abu yow itam nga nekk suñu nattaango nekk euh, itam ci taskatu xabaar yi euh, ba suba ba léegi yaa ngi fi tey naka nga jàngate li nga xam ni moo fi xew jamono ji waaw li ma ko jàngatee mooy li nga xamante ne tey mooy étudiants yi dafa am loo xamante ne projet de loi boo xamante ñu ngi ko bëgg boo xoolee àdduna bi tey ñu bari d'accord ñu ci loolu surement niveau Sénégal tey fii ñun suñu réew mi tey ñu bari d'accord ñu ci loolu mais dafa am benn message bu bëgg a lâché tuuti rek lu ndaw mooy tey nga ñu leen loolu c'est pas normal dàq bi nit ki bu nga ko ci bi nga xamante ne tey dàq bi nga a dàq wala a a arrêté parce que tey mën nga mën nga mën na ñëw tey ba a a jël ne expliquer carrément journal ne ko ah tey kat dafa am lu fi am nga xamante ne et cetera lu mel nii ak nii ak nii mënuñoo bàyyi li nga xamante ne tey mooy journaliste yi ñu am accès ci biir mais dafa ñu loolu tey nekkee ci la ci loo xamante ni su su boo fi taxee dama lay humilier wala dama la ñuy de man réew moom def may xaw a jaaxal ba te ñoo quatrième pouvoir. mais est-ce def. def leer jarul ngay nëbbatu yaa ngi comprendre man dama jàpp ne li ñu a def tey dafa leerul. yaa ngi dégg parce que li ñu waxante dëgg ñun tamit luy kuy def lu leer doo nëbbatu mais tey am nañ tey dëkk yoo xamante amuñu courant tey mais seen i téléphone la ñu yor tey di déglu tey lu war am assemblée tey am na ñoo xamante amuñu temps tey toog di suivre télévision tey ñuy xaar tey li nga xamante mooy tey journaliste yi presse liggéey bi ñu war a tey ñun bi ñu war a tey parce que ñun tey lii suñu liggéey la tey lii buñ ko wanewul tey ñun suñu cuune la cuune état bi la tey loolu suñu cuune la ñun journaliste ba pare mënut a nekkaat cuune li nga xam ne mooy état bi. Eh, xam nga xam nga cuune weesuwul tey jii ñenn ci taskatu xabaar yi bëgg a dem euh, euh, couvrir li nga xam ni ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée nationale askanu ñu leen fa nekk euh, ndaw réew mi. donc ña fa nekk bu ñuy waxtaanee loo xam ne réew mi la soxal mm. war nañu fexe ba taskatu xabaar dugg fa ngir mën a jot li nga xam ne amuñu jot wala sañ-sañu dugg fa nga xam ne mooy biir biir assemblée nationale. dëgg la li nga wax nii lu lu dëgg biir péng la parce que boo xoolee tey man maa maa xëy suba teel Euh, parce que ay boor 8 heures ma jël message bi man ma tasaare ko parce que ñu man maa fa njëkk a dem man 6 heures du matin maa ngi buntu assemblée. de l'ordre luñ la wax. dama egg si gendarmerie si boobu moom moo génne ma nii xaw ma presse xaw ma leen mais fii tey ku fi ñëw dañ lay émulé ci biti. ma taxaw pour ko ñu a jóg wala sax mun nañu amal accès ci biir mais wut la fréquence ngeen taxaw yéen presse bi xam lu mu ñuy wax fu leen fekk dama leen toroxal. moom takk der bi carrément mu ne su ma leen fekkee fa daa leen toroxal ma daa leen parce que depuis démb la parce que démb loolu ndax ndax ndax tey jii euh, euh, euh, ñu ngi gis ni ambulance am na benn ambulance bu ñëw ci biir ñi nga xam ni maa ngi maane sànq moo doon def appel bi étudiants yi am na ñenn ci ñoom ci biir dañoo blessé am na ñenn ci biir ay asthmatique lañ am na ñenn ci biir mënuñoo noy ak lacrymogène yi ñu doon demandé à ce que croix rouge wala ñenn ci nga xam ne ñooy yëngu maanaam santé ñu ñëw secourir ñoom day mel ni sonn loolu ci ci lacrymogène yi mais tey dafa am loo xam ni wax nga ko sànq mu di bu ñu demee ba wëy takk dara janoo ak journaliste quatrième pouvoir naan ko doo dugg biir assemblée nationale assemblée nationale nekk nga péncum ndawi réew mi ñu war fa dem euh, xool li nga xam ni moo fa xew dégtal ko askan wi tey ñu ne la doo fa jëm ba noppi ña la fu ma la fekk dama lay humilier tey ndax tey ji mën nañu wax ni réewum démocratie la réewum euh, réewum euh, liberté d'expression la mm-hmm. réewum moo xam ni presse bi mm, elle est libre mm-hmm. oh, lan moo tax ñu génne ci li nga xam ne mooy presse génne na ci presse ñu presse bokkuñ ci li nga xamante mooy mooy luwaa boobu noonu mais man dama naan xel day tey xel day tey parce que tey pour dem ba dina dàq est ce que tey ëllëg doo nekk si écoute ñu ñu ñuy déglu journaliste yi yeneen information la ñu war a mën a génnee yeneen parce que affaire problème bi depuis démb ci guddi la la la la tàmbali parce que démb ci guddi ba ñu arrêté Abdou Karim Gueye man maa ngi maa ngi taxaw buntu ensemble waaye ba mu ñu daf ñoo song nangu suñuy téléphone moom policier yi carrément dañoo song nangu suñuy téléphone ma ne ko pourquoi ba nga jël sama téléphone mu ne da ngeen doon filmé mu ne ko mais suñu liggéey la ñuy def suñu liggéey la ñuy def ñun mais après bo mais parce que boo xoolee tamit nag ñu ne fu ay nekk dina am ñu gënante si ay xel am na beneen euh, euh, takk der bu fa nekk ku conscient ku yaru ku am teggin ne ko delloo leen seen i matériel dañuy liggéey li ñu war a liggéey ñun li ñu war a def mooy lan nañu arrêté Abdou Karim Gueye yóbbu ko ñu jël Abdou Karim Gueye yóbbu ko ba pont Colobane sandi ko ñu yóbbu Abdou Karim Gueye ba pont Colobane ñu sànni ko fa ñu ànd ak ñoom tamit ba pont Colobane fi ñu sànni Abdou fa Abdou Karim Gueye interview ak tamit tamit yeneen la ñu génn attaqué waat ñu ba ñu attaqué am fi ñu ko fee rafet yenn euh, suñu ñaataangoo yi seen i téléphone ñu toppal Abdou Karim Gueye demaat moom ba assemblée ba ñu arrêté waat ko yóbbu ko euh, police centrale te la ñu obligé gars yi ñëw di ñu xam nga di ñu maanaam xoxotal quoi xam nga di ay di ñu waa di ñu jéem a néewal doole ak affaire réew mi du réew néewal doole Sénégal bu fekkee li ñuy wax am na ci réew mi réewum démocratique la nañ bàyyi li nga xamante ñu ñu koy def ñun journalistes yi nañ ñu bàyyi ñu liggéey ñun dëgg la homme de terrain service la ñuy def mais ñu tamit service la ñuy def. waaw waaw ñu tam Abdou dinaa ñëwaat ci yow léegi muy mel ni biir université ba tey mu ngi continuer di jax ndax yéen ngi ngi dégg euh, euh, grenade lacrymogène yi mel ni bomb euh, di tàkk daanaka bu tàkkee day mel da ngay tiit sa fit dafay dem mais daal vraiment doy na waat léegi suñu nattango Euh, Abdou li nga wax dëgg la parce que tamit euh, li nga xam ne rek mooy euh, bombe lacrymogène yi métti na loolu parce que tey jii nii li nga xamante ne mooy bomb yi Abdou boo koy boo ko déggee sa fit bi day dem parce que man benn instant bi nga xamante ne maa ngi doon génn si université bu Ndakaaru di génn bomb bi ba mu ki tàkkee sama côté la la tàkkee dama tiit ba mu jigéen tuuti ma daanoo fet muy wane ne rek doole bi nga xamante ne bomb bi am na ko te am na ñi nga xamante ne tey jii ni bomb bu leen bu yóbbee seen fit yi dañuy tiit mun nañ see xëm mun nañ see am tiitaange bi nga xamante ne dootuñ mën a ci def dara ba li nga xamante ne mooy xeer yi ñuy sànni mun na leen a daal parce que ñun ba ñuy man ba may génn sànq j'étais voilà oto ñu ngi leen di sànni effectivement oto yi dañuy jàll mais étudiants yi xooluñu oto bi jàll ak ku ci bokk ku ci bokkul ñëpp dañ ci yemale donc arrêté woon nañ li nga xamante ne mooy trafic bi fii nii ci université bu ndakaar ci rond point bi mais instant yi bàyyi nañ leen ñu dem mais ñoom it dañoo am difficulté pour accéder bu baax ci li nga xamante ne mooy ci université wala sax pour dem ci seeni yoon Euh, sa vitre bu toj xaj na si gisoo accès ni ñuy accéléré dañuy daw xël donc wóorul sax su amee kuy jéggi wala dara oto mun na laa gaañ wala lu si mel donc je pense que ñu arrêté trafic bi si côté bi moo gënoon dafa mel ni sax euh, policiers yi arrêté nañ leen ndax boo xoolee fële ci kanam oto yi avancé wu ñu ngi may taxaw stationné euh, di xaar dafa mel ni rek demi tour la parce que je pense que loolu moo nekk li nga xamante ne moo gën a wóor parce que yi am nañu si bëri ñu ngi daw di dugg ci biir parce que seen i euh, logement la ñu nekk foofu la ñu mën a euh, def li nga xamante ne moom mooy laqatu comme on dit pour mun a euh, am seen sécurité personnelle gis nga leen ni ñuy dawee noonu di dugg si biir université bu Ndakaaru mais booy dugg sax dañuy tiit mais am na li nga xamante ne aussi nemmeeku nañ ko fa ñu koy rafetlu mooy étudiant ngi ci jëm boppam ñiy xeex xale yu góor yi ñoom ñoo nekk di secourir en premier lieu jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi fa mais it am na jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi ci biir université ñoom dañuy xeexle bu baax li nga xamante ne mooy euh, mooy euh, góor ñi góor jigéen ñi nga xamante ne jigéen ñu mën góor lañ leen ñu ngi takk ba dëgg takk seen i basket voilà ñoom ñooy andi xeer yi boo gisee seen seen i sio jël génnee ko si seen logement sio sangookaay yi def si ay xeer ñoo di ko jox xale góor yi di kaas comme ñoom xale góor yi di leen couvrir ñuy dem ku si am problème respiration ñoom ñooy njëkk a dem euh, jàppale la suturaal la ba li nga xamante ne mooy euh, ambulance bi ñu doon woote sànq te ba may génn étudiant yi di ma ko naan ma dimbale leen ñu ngeen euh, jàllale information ngir ambulance ñëw fi ngir jigéen ñi nga xamante ñu ngi fi di am problème nooy mu mel ne ne lu ñu mel gis nañ ko ndax ambulance bi dugg na si biir di leen sauver donc loolu itam euh, bokk na si li nga xamante nemmeeku nañ fa mais ji boo xoolee fële à droite étudiants yi tamit ñu ngi daw di génn Abdou Khadre comme ni nga koy gisee ñu ngi nee di génn di dem di di di làqatu parce que tamit metti na euh, bomb yaa ngi gën a metti ñun ñuy taxaw fii lacrymogène mu ngi saf bu baax a baax ñuy bët euh, respiration metti na mais nag ñu jàpp ne rek euh, lépp rek pour jagleen leen xibaar yi à temps réel fii si Sénégal 7 Abdou Khadre <laughs> alors comme ni nga ko waxee rek maanaam yéen a ngi gis force de l'ordre yi ñoom itam ñoo ngi woy euh, di euh, sànni seen ay grenade lacrymogène euh, ñi nga xam ni ñi nga xam ni ñoo di wëy takki der itam ñoom itam ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi persister itam di fexe rek ba li nga xam ni moo di ñi nga xam ñoo di étudiants yi nga xam ñoo nekk ci biir ñoom itam yéen a ngi gis lacrymogène yéen a ngi koy dégg ndax mun leen yéen koy gis di ko dégg itam ngeen gis étudiants yi dañoo dañoo encagoulé wu di sànni seen i xeer Euh, ba tam yor seen ay ay euh, vinaigre nga xam ni moom moo leen di permettre ñu mën a nooy ci biir lacrymogène yi waaye am ñenn ñoo xam ne daal mën nañu nooy ak ak ñi nga xam ne ñoo di ñoo di lacrymogène yi boo xoolee euh, yéen gis ci image yi benn benn waay boo xam ne mbuus la yor duuj ay xeeram ba ba mu fees di sànni bu sànnee ba mu jeexee mu dem duyuwaat ak ak lance pierre lance pierre itam ñoom jàpp nañ lool mooy seen arme loolu la ñu mën a riposé ak li nga xam ne moo di grenade lacrymogène yi wuy takk der itam ñoom itam ñu ngi jéem a ñi ngi jéem a modéré ñu ngi jéem a modéré waaye itam di renforcer ngir rek ñu bañ leen a bett ci li nga xam ne moo di assaut étudiants yi Euh, booy mooy comme mooy li ma doon wax sànq dañ leen a bëgg a wër ndombo parce que ñu nekk fële corniche ba ñoom jamono ji ba ma duggee sànq si bi ñu ngi doon avancé nànk nank di dugg si mais ñoom système bu ñu teg nee la bu ñuy dugg si Abdou Khadre si biir université bi dañuy dugg si du ñu yox daxa day mel ni ne kay tey ji ñoom xeexu xeexuñu xuloowuñ dañoo ñëw juste doon jàng si lii am fi ñu tombee si mais bu ñu dugg see da ngay gis seen saa gi si jëm boom ay xeer moo si nekk bu ko defee seen i bagage teg ko fële génnee xeer yi di sànni bu ñu paree génnaat xool situation situation am nu mu mel duggaat. wax leen ko mais boo xoolee saxaar si da xam ne université ak hôpital bu fan ñoo dend université de Fann benn lañ ñoo dendoo tey jii bu ñu fexee am na ay malades yu fa nekk ñoo xam ne ñu ngi tëdd seen ay lii d'hôpital ñoo xam ne ñu ngi am ay tawat bëgg nañoo ñëw accès dem ci hôpital dem ci hôpital bi ñoo ngi sonn ndax euh, ko nooyee ndax boo xoolee comme kaani ak xorom bu ñu jaxasee ak poobar ndax mu ngi saf saf jamono ji lacrymogène yaa ngi saf parce que ji wax dëgg neex yàlla ñun ñuy nekk fii euh, ñun journalistes yi cadreurs yi ngi bëgg a dee mënatuñu wax bu baax personnellement man bi saf na mais rek comme li nga wax sànq si kanam incha allah dinaa doxantu fële ca Euh, hôpital bu Fann incha allah parce que moo dend ak université bu Ndakaaru benn la daanaka dinañ fa dem xool ñoom ñi nga xamante ne ñoom ñooy malade yi ak médecin yi euh, ñi fa nekk nan la ñuy dundee situation bu amee parce que université de Ndakaaru nemmeeku nañ bu baax a baax si li nga xamante ne mooy xeex ak lacrymogène ñoo ngi fii ci rond point bu université Anta Diop mm. taxaw nga xam ni moom lañ jagleel euh, le bâtisseur moom lañ jagleel ki nga xam ni moom lañ tuddee université bu Dakar de Cheikh Anta Diop mi ngi tàllal loxoom tey man ma ci jàngat mooy stop à la violence Dakar ndax temple de savoir temple du savoir la euh, daal mi boo xoolee stade bi ni mu taxawee day mel ni danaan danaan yi euh, bàyyi leen violence euh, arrêtez leen les manifestations vous vous pouvez manifester mais pacifiquement. autrement vous pouvez manifester votre colère mais mais pacifiquement. na tey boo xoolee itam maa ngi maa ngi lire benn texte boo xam ni Abdoul Mbaye moo ko bind mu ne mu ne le Sénégal est désormais à la DEI. Un dispositif sécuritaire a été érigé devant l'Assemblée nationale où le projet de loi modifiant le le code pénal devrait être euh, voté. C'est aussi le cas au niveau de plusieurs points stratégiques de la capitale. Selon Abdoul Mbaye, euh, de l'acte Euh, mu ne euh, il faut la peur et une grande incompétence pour assimiler casseurs et internautes indignés à des terroristes à des terroristes dans un nouvel arsenal juridique particulièrement répressif le Sénégal est désormais à la dérive loolu di kàddu yi nga xam ni moo di Abdoul Mbaye nekkoon premier ministre waaye itam euh, nekk acteur politique jiite parti bi ñuy wax mooy alliance muy muy active bi nga xam ni moom Abdoul Mbaye euh, nekkoon euh, premier ministre euh, moom moo moo ko moo moo ko jiite liñ ci mën a wax daal buñ ko mënee tënk faram fàcce ko ci ay wolof moo di def ni Sénégal daal mu ngi ci guuta guuta goo xam ne jàpp na ni xamul fu muy fu fu muy teeree ndax bu ñu demee ba ki nga xam ni mooy jiite ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw ñi nga xam ni ñoo ñu war a tey jàppale ñi nga xam ne tey ñoo ñu war a dimbali ba suñu manifestation mën a jàll ñi nga xam ne bu ñuy manifester ñoom ñoo war a joxe autorisation pour ñu mën a ñu mën ñu encadrer encadrer sénégalais yi ba kenn du xam ni du gaañu li nga xam ni moo di li ñu bëgg ñaxtu mu di seen seen ay meccal tey mu ne bu ñu demee ba tey jamono joo ñoo xam ne dañuy jaxase jaawale ki nga xam ni day day day day manifester ak terroriste kon problème am na ndax droit la sénégalais am droit ci droit la sénégalais yi am ngir rek mën a dem manifester droit la sénégalais yi am mais ñun boo xoolee ñun journaliste amuñu problème boobu fii nii ndaxte tey ji euh, policiers yi takk der yi ñu ngi ñuy bàyyi ñu def suñu liggéey ni mu waree mais tey boo demee ba assemblée nationale foofu la mbir mi war a xeweñ mais nag Abdou Khadre dogguma la mais ñu ngi nekk fii policiers yi ñu ngi wër certes vrai mais am na ñi nga xamante ne ñu ngi sa ginnaaw fa la jël di sànde li nga xamante ne mooy grenade yi te wóorul mën nañu laal aussi mu ngi ñuy ñu ngi dégage ñu ngi dégagé ñi nga xamante ne mooy ful bu nekk suñu ginnaaw fii si rond point bi nga xamante ne moo nekk si université euh, Cheikh Anta Diop mais nag wóorul parce que tey jii ku nekk suñu ginnaaw di tiire mën nañoo fekkee ñee di kii dafa mel dañoo sekk donc ñun itam ñu ngi nekkuñu ñu à l'abri ñu ngi nekk en danger ñu ngi ñu ngi nekk si li nga xam ne comme que ñun amuñ mënuñu am amuñu accès ci biir université pour wax ak étudiants yi pour ñu bañ ñoo xamee ndax xeer moo xamoo fu mu jógee mm-hmm. nañu wax ak yooyu takk der yi mm-hmm. ñu xamal leen la ñu ñu ñun suñu ñu protégé tey tey tey jii bu ñu jàppalewul rek amaana suñu liggéey duñ ko defee duñ ko defee ni moom laa doon wax sànq gis yaa ngi dégg renfort yaa ngi ne di ñëw parce que fii dafa jax loolu métti yeneen gis noonu image yi gendarmerie ñëw na te gendarmerie xam nga si lu mu teew rek ça veut dire que euh, mbir mi mu ngi dégénéré euh, parce que nag euh, lu ma leen waxoon sànq ñi nga xamante ne ñoo nekk fële ca corniche bu université Cheikh Anta bu Ndakaaru ñoom nag jamono ji dugg si nañ si biir te am na tamit ñu nekk si aux alentours côté tapis rouge bi maa ngi excusez si li nga xamante ne ma publicité bi maanaam côté Sam am ñu fa nekk si côté Abbas Ndaw ñoom itam dugg si nañ si biir université bu Ndakaar moo tax boo jeu de pierre yi di gën a bëri di gën di ñëw di avancer moo tax tey jii ñoom itam ñu ngi yokk bu baax seen i renfort donc gendarmerie fu mu teew rek ça veut dire que ne mbir mi la police mënatu koo contrôler. Mhm. alors euh, bu ñu xoolee daal muy mel ni comme ni nga ko waxee sànq ñu ngi wut ay renfort euh, ngir rek fexe ba euh, calmer les fexe ba ñi nga xam ni ñooy manifester jóge ci biir université bi ngir rek daal di fexe ba circulation bi nga xam ne trafic bi nga xam ne moo jógee ci yenn gox yi nga xam ne koy paralysé ñoom ñu ngi fexe ba tout de telle sorte que euh, ñu repousser étudiants yi ñu mën a duggaat ci biir université bi euh, ñoom ñu mën a boo xoolee da ngay xool dañuy dañuy dañuy barricade wu yenn euh, jili jili yaa ngi gis ñi nga xamante ne mooy xale jigéen ñi doon jàngi si ñu ngi nee di daw di dem ñoom nag ñoom pro situation bi xaar ñu ko fi woon donc xam naa du ñàkk si kanam ñu dem na en tant qu'étudiant ñëw war a jàng si bu ko defee nag ñu mën leen a laaj ñoom situation nu ngi ko parce que ay jigéen lañ dañoo néew doole lool moo tax ñu ngi nii boo gisee ñu ngi daw ay euh, ndaw yi nga xamante lii wóorul si ñoom parce que xale euh, lii mënu koo respirer parce que ñun ñu taxaw fi nekk ay euh, mag sax daanaka. dafa am ñoo xam sax ñu ngi daw di dugg ci biir camp camp Jérémy. effectivement di làqatu loolu lépp rek pour sàmm sa sa sa sa kaaraange am sa kaaraange boobu parce que parce que ñi nekk si biir ak ñi nekk si biti moo ëpp foofu li nga xamante ne mooy takk dari Abdou. voilà mu ngi mu ngi noonu mu ngi noonu yéen a ko gisandoo li xew ci université Cheikh Anta Diop de Dakar euh, ma ma jàllaat rek ci li nga xam ne moo xewoon fële ca euh, bërki dem 23 juin 23 juin 23 juin yéen a ngi koy gis yéen a gis image yi taalaat nañ ci biir euh, université bi mais daal mais daal doy na ndax ba ñu demee ba ba ci jamono joo xam ni daal boo bëggee manifester ñu ne doof manifester la ngay mujj la ngay mujjee def moo di eh, eh, ñaanuñu ko ndax ndax ndax ñun jàmm la ñu bëgg jàmm la ñu bëgg ci réew mi ñu ngi woo itam étudiants yi ñu def li ñuy def mais calmement ñu def li ñuy def paci pacifiquement ñu def li ñuy def ànd ak tey en demander seen autorisation de manifester waaye itam waaye itam euh, waaye itam nguur gi ñoom itam bu ñu bu ñu fexe ba bu ku bëgg a manifester ñu ne ko dafa manifester loolu du yoon ndax dafa am ci ci article yi nga xam ne moo ñu tënk mu di euh, charte réew mi charte réew mi yéen a gis xëy ni muy jógee fa day mel ni euh, voilà ci ci côté euh, bi jëm ci fan voilà bu jëm fan directement yaa ngi gis euh, ñi élèves yi étudiants yi si boobu ñoo avancé bu baax ragalatuñu li nga xamante ne mooy takk der buñ leen sànnee lacrymogène dañ koy téye seen loxo sànniwaat leen ko donc mu mel ni rek xeer yaa ngi gën a avancé di gën a ñëw si li nga xamante ne mooy takk der yi donc mu mel ni rek situation vraiment muy gën di persister di gën a métti di gën di compliqué donc daal vraiment c'est déplorable saxaar si tamit muy gën a bët yi wax dëgg neex yàlla mu ngi saf sap lacrymogène yi saf na li gën a déplorable gannaaw lacrymogène yi saf na mais li gën a déplorable pour man selon selon ma propre conviction moo di ay doomu réew mi ñoom ñoo la fi tegoon xeex ba tey nga toog nga toog ci fi nga xam ne fi nga toog tey nga bëgg leen nga bëgg leen a xañ seen droit de liberté seen droit de manifester seen euh, liberté d'expression loolu loolu day doy waar loolu day doy waar loolu ndax muy muy muy muy journaliste bi muy takk muy borom takk der bi muy politicien bi muy donga daara bi muy sëriñ bi ñoom ñëpp ay Sénégal lañ ay citoyen Sénégal lañ te bu vote jotee dañuy dem jël seen carte électeur dem voter mais tey kooku bu bëggee ne man kat lii ma mën a dama koy manifester war ngaa am euh, la la décence nga bàyyi ko bu manifester pacifiquement vraiment nga jël encadre leen ngir rek ñu mën a wéy lañ wax mais ñaxtu rayul kenn ñaxtu rayul kenn yéen a ngi gis euh, côté bi nga xam ni moo jëm Sam ak euh, petite porte bi nga xam ni moo moo nekk à l'université de l'autre côté bi nga xam ni moo jëm moo jëm moo jëm Fann euh, mbir yi mi ngay commencé dégénérer wu foofu ndax étudiants yi day mel ni ñu ngi ñu ngi ñu ngi commencé di vraiment di di di di di sànni xanaa ñu doxantu rek ba côté petite porte Euh, ba ko tey euh, petite port bi nga xam ni moo nekk fële ci euh, Sàmm boo xoolee takk der yi ñoom ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi reculer tiwut ba tey askan wi ñoom itam ñu ngi taxaw foofu arrêt la arrêt boo xam ne foofu la ñuy jëlee oto ngir mën a dem ay Géejawaay Pikine dem Colobane ñoom ñëpp daal ñu ngi kenn ku ne. yaa ngi barricade yéen a ngi dégg étudiants yi ñu ngi indi renfort ci pavillon pavillon juste euh, devanture pavillon A bi euh, muy mel ni euh, dañuy def ay li ñuy wax renfort la ñuy def bu ñuy sonnee ñenn ñi yéegaat ci kaw pavillon A bi ñeneen ñi ñëwaat ngir rek indi seen renfort fi nga xam ni moom moom moo di buntu université Anta Diop de Dakar ndax boo xoolee ñaari grande porte moom voilà ñaari grande porte moo am université Anta Diop voilà <laughs> bomb bi dootu ko fekkee. mu nekk ñaari ñaari grand ñaari ñaari grande porte yoo xam ni moo nekk fii ci université Anta Diop de Dakar muy grande porte bi nga xam ni moo janoo ak li nga xam ni moo di euh, rond point bi nga xam ni moo abrité statue euh, bu euh, bu Cheikh Anta Diop beneen grande porte mi ngi nekk ci côté côté hôpital Fann ñoom itam ñaari porte yooyu yëpp dañ ko barricadé ba tam boo xoolee petite porte bi nga xam ni moo jëm fële ca Saam moom itam ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi ñoo ngi fay itam di di di di di manifester ñi ñu ngi sànni ay xeer police yi dem nañ ba ba muy mel ni euh, seen seen ay arsenal voilà dafay dafay dafay jeex ba ñoom itam dañuy fexe daal euh, ba lu ñuy dóor rek mu nekk loo xam ne ay xeer la ñuy sànnante ak ñoom mu du nekk benn euh, yéen a ngi gis police bi mi ngi sànni mu ngi mu ngi commencé di sànni ay xeer ni ñoom itam étudiants yi di di di di di sànni di sànni seen ay xeer maanaam voilà comme ni nga ko gisee boo xoolee tey li nga xamante ne mooy bu ñu duggee si sànq ba ma génnee maa étudiants yi dañ ne carrément ñoom duñu sonn duñu tay parce que jugu garaawaay moo nekk fële ci université bu Dakar loolu fottu état la parce que ñoom ñoo ko fa fàttee dindi parce que xam nañ université ku fay ñaxtu voilà travaux yi ñoom nee nañ seen fottu la fottu état la donc da leen a yombalal seen liggéey parce que même bu dee travaux lañ nekk bu ñu paree automatiquement ak ni ñu xamee université xam ne jàmbaar la dina fi am tay mënoon nañoo ñëw ci guddi gi dindi ko yóbbu ko ngir éviter lu ñu mel mais ñoom xam nga étudiant mënoo mënoo ramasser xeer yëpp xeer tey euh, boo xoolee université boo duggee ci biir boo jë grande pot bi nga xam ne moo nekk ko Fann loolu lépp chantier la tey mënoo mënoo mënoo jekki-jekki rek nga ni da dangay da ngay da ngay da jël xeer yëpp nga nga nga nga nga yóbbu ko fenn étudiants yi ñoom itam dañuy fexe ba jël seen ay ay ay ay ay yoo xam ne moom la ñu utiliser mu di ay xeer ndax ñoom ay xeer rek la ñu am euh, pour rek man ko euh, nekk mu nekk seen arme de jàmmaarloo ni ma ko mën a tuddee ñi nga xam ñoo jàmmaarloo ak ñi nga xam ni ah yeneen yeneen yeneen gis ñi nga xam ne ñoo di takk der yi ñoo ne nañu nañu nañu wàcce suñu ay caméra mais tey euh, tey téléphone bi ok mu ne ah, ñu wàccee téléphone bi euh, voilà euh, kon rectificatif la boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy joxe rek mais tey ji ñu ngi xool ñoom itam ñu ngi fexe rek ba repousser ñi nga xam ni ñoo di étudiants yi voilà moom itam moom mi yoroo téléphone bi itam journaliste la Euh, su téléphone am la fay liggéey parce que tey tey jii lu caméra man rek téléphone mën na ko tey mënuñu mënuñu mënuñu vraiment euh, tey journaliste yor carte carte professionnelle am euh, di filmer que ne ko doo filmer loolu mënu lekk benn mu téléphone bi la wax bi ñu ko expliqué ne ko téléphone bi kii journaliste la téléphone la utiliser daf ko daal di bàyyi mu dem voilà ñu xam réew mu ñu nekk vraiment du du réew moo xam ne bëgg nañ ci ay jàmmaarloo ndax bu ñu sañoon tey ji lépp lu ñuy def ñoom way takk der yi dañuy sécuriser dañuy sécuriser sécuriser itam askan wi ñu def ko ndax ñoom ay ay jàmbaar lañ ñoom booy takk der yi ay jàmbaar lañ ndax bu ñu xoolee sax boo xoolee ba léegi ñoom ñi ngi fexee ba waxtaan ak étudiants yi euh, ba li ñu bëgg ñu mën koo accéder ñu mën koo am euh, ci loo xam ne amul violence voilà ñoom ñoom ñoom booy takk der yi ñun ñi nga xam ñoo jàng université xam na ni euh, jamono ji met na ci ñoom lool ndax tey euh, damay xool ni yenn saa yi ñun bu ñu euh, il faut ñu wax ko parce que tamit oh, il faut oser le dire ñoom muy takk der yi ay jàmbaar lañu. Mhm. jàmbaar nag weesuwul euh, depuis couvre-feu bi. bi jàngoro première vague bi première vague bi ba deuxième vague am ñoom ñoom rek ngay gis ñu fanaan ci biti ñoom rek ngay gis ñu yor ñu yor sécurité askan wi ñoom rek mais nag am na ci ñoo xam ne ay ordre la ñuy jot. te ñoom bu fekkee dafa am lu régir mu di ay ay ay sa nga am sa ay chef tey bu ñu la joxee ordre da mm-hmm. nga koy exécuté mais nañu xam ne ordre yi nga xam ne moom la ñu exécuté seen ay rakk ñoo fi nekk seen ay jarbaat ñoo fi nekk seen ay doom ñoo fi nekk ndax ñoom itam ay nit rek lañ tey dama doon faral sama benn xarit boo xam ne policier la mu ne lan moo tax tey ji bu ñu gaañee policier kenn du ci wax te bu ñu laalee kenn ci askan wi ñu commencé que ñoom ñoo ñu war a war nañu leen a wecc ba ba ba jox leen benn cër boo xam ne daal vraiment lu ñu am ak ñoom diita ñaas lu ñu am ak ñoom xaar ma yàlla mhm. ndax ñoom suñu sécurité moo tax ñu teg leen fii ñu itam nañu fexe ba vraiment ñu jox leen cër bi waaye itam ñoom itam ñu delloonu cër bi ndax loolu lu am solo la voilà Abdou comme ni nga ko gisee rek euh, yéen a gis image yi fële euh, fii nga xamante ne mooy Ifaas waa voilà mu ngi noonu nag jamono jii na jege lool lool li nga xamante ne mooy hôpital bu Abbas Ndao daanaka université Assane Diop dafa sekk ñaari hôpital yu mag yi nga xamante moo nekk si Ndakaaru mooy bas Ndao ak hôpital bu Fann donc nag euh, hôpital côté Abbas Ndao métti na loolu ndax jamono ji foofu tamit saxaar saa ngi jolli ñi ñaa ngi tàlli na donc nag du ñàkk ne aussi li nga xamante ne mooy renfort yi fi ñëw dinañ fa dellu donc nag boo gisee étudiants yi nga xamante ne jamono ji ñu ngi nekk fële ca IFAS ñoom itam ñu ngi génn di daw euh, surtout ay jigéen ñu ngi daw di euh, dem di xool fan la ñu mën a làqatoo rek ngir mën a am mucc si li nga xamante ne mooy jàmbaarloo yi fi am waaye rek li nga xamante ne mooy euh, takk der yi nag ñoom jamono ji ñu ngi jël xeer di ko delloo ñi nga xamante ne mooy étudiants yi nekk si biir université de Dakar parce que ñoom ñoo leen koy sànni est-ce que nekkul ne li étudiants yi wax moom moo nekk di doon dëgg ndax ñoom bañ nekkee si biir dañ ne carrément li nga xamante ne mooy euh, seeni arsenal di euh, lacrymogène ni ñuy sànni ñoom seen yos dina jeex mais une ñoom ñi étudiants yi seen i xeer du mës a jeex moo tax ñu nekk di sandiwaat ay xeer amaana looloo tax donc nag gis nga ni ngeen ko gisee ci image yi euh, takk der yi ñu ngi jël ay xeer di ko tëmbalaat bu baax ci biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru wax dëgg neex yàlla li nga doon wax sànq rek ñoom itam ay Abdou da ngaa xiif may garaawul liggéey bee ñu fi teg nañ ko gérer rek <laughs> voilà mu ngi mel ni rek jamono ji Abdou li nga xamante ne mooy takk der ñoom itam ñu ngi jël ay xeer eh, di jël di teg waaye nag cadreur yi fi nekk itam wax dëgg neex yàlla sonn nañ loolu parce que ñu ngi téye seeni i eh, di def seeni i liggéey sànq gis nañ suñu ki nga xamante ne eh, nga ne lan sëñ bi. sama agent dama ko gars yi jox ñoo ko jàpp ci ba ñuy arrêté Karim Xrum Xax démb si guddi. waaw waa central ñu jox ah, ne dafa am suñu benn naataango bi nga xamante ne tam dafa teewoon fële si assemblée nationale euh, fi nga xamante mu mel ni moom itam nee na dañoo jàpp li nga xamante ne mooy engin la nekk foofu lañ jàppee li nga xamante ne mooy scooter am donc mu ngi ñaan rek ñu delloo ko parce que liggéeyam la doon def donc mu mel ni situation vraiment métti lool di jaajëfal bu baax ñi nga xamante ñu ngi ñuy teewlu à travers Sénégal 7 euh, yi nga xamante xamante ne jamono ji ñu ngi euh, amal li nga xamante ne mooy direct donc nag euh, euh, ñu jëmal daat rek fi nga xamante ne mooy rond point bu université Ndakaaru université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru parce que nag fi statut bi nekk rek foofu la ñuy delluwaat parce que boo xoolee problème bi foofu Abdou foofu la gën a méttee te takk der yi foofu lañ gën a nekkee itam mu mel ni situation métti na donc bëgg naa itam ñu xool waa étudiants yi nga xamante ne tey ñu ngi fi teew ñoom ñu ngi nii di daw sax mais ñoom itam si askan wi. si askan wi lañ bokk foog ñu laaj leen ñoom itam Euh, seen xalaat si li nga xamante ne rek moom moo fi am euh, fii si université bu Ndakaar ndax ñoom dañoo ñëwoon a di jàng si donc tey itam ñoo ngi jokkoo ak ñi nga xam ne ñoo nekk assemblée national mais ñoom la xam ne mooy ba léegi mënaguñu am accès pour dugg fi nga xam ne moo di biir assemblée nationale fekk li nga xam ne moo di projet de loi boo xam ne ñu ngi koy voté euh, fay ca pencum ndaw réew mi nga tey vraiment nekk na loo xam ne c'est déplorable ñëpp ñu ngi koy naqarlu mu di bu ñu demee ba tey jii ñenn ci wëy taskatu xabaar yi mënuñu am accès fa nga xam ne moo di pencum ndaw yi réew mi ngir rek fexe ba la nga xam ne mën nañ ko faa def euh, te mu soxal askan wi ñu xam nañ lañ koy defee te loolu mooy yoon yoon loo xam ni boo koy def askan wi moo tax nga koy def ngeen leen dañ koy def mais dañ koy def ci seenu ci ci ci seen ginnaaw lañ koy def maanaam yéen a ngi euh, dégg bomb yi Abdou bomb mm-hmm. yaa ngi euh, tar wax dëgg neex yàlla man sax damaa mujj tiit man mm-hmm. Mm-hmm. est-ce que duma daal di daw mu mel ni euh, journaliste itam def nañ benn euh, ab benn say rek benn bloc ngir rek euh, amal liggéey bi nu mu waree parce que bu ñu tasaaroo itam mun nañoo néewal doole kenn si ñun moo tax ñu def benn say benn bloc loolu aussi suñu waxeef la suñu stratégie la. pour pour moo nekk la président. des jeunes reporters moom itam mu ngi def liggéey bu am solo. kooku sama papa voilà mi ngi fexe ba euh, journalistes yëpp jeunes reporters yëpp euh, nekk ci benn benn benn groupe nekk ci benn association ngir lépp loo xam ne muy ay manifestation wala ay sa ay loo xam ne ñu ngi koy. dañuy gis Abdou ambulance bi doon woote sànq euh, mu ngi mel ni rek ñu ngi gën di bëri waa Croix Rouge parce que sànq bu ñu fa duggee wax dëgg neex yàlla man samay tàngal mante fraîche yu ma yoroon yëpp dama ko may li nga xamante ne ñooy étudiants yi surtout jigéen ñi nga xamante ne ay asthmatique lañ ñoom laa may paquetu ma yoroon yëpp jox leen ko fekk ñu mën a am tuuti énergie pour mën a nooyi bu baax mais nag ba ñu génnee ñu ngi ñu doon wax ni ñaan ñu ngi leen di ñaan ngeen lancé appel bi ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy am euh, ñoom ñoo nekk ay euh, service sanitaire ñu ñëw jàppale bu baax ñi nga xamante ne ñooy ñoo fi nekk am ay métit donc gis nga leen ambulance maa noonu di dem di évacuer ay étudiants di jàppale ay étudiants ñi nga xamante ne jamono ji ñu ngi am ay problème donc mu mel ni rek voilà donc mu ngi mel ni mu ngi mel ni rek ñun ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñun ñooy euh, voilà mu ngi mel ni rek euh, way takk der itam ñun fu ñu nekkoon si euh, rond point bu université Dakar aussi statut bu ñu jagleel Cheikh Anta Diop donc nag foofu lañ nekkoon depuis si suba ba tey mais mu ngi mel ni dañ ñoo daq parce que bañ fa dañ fa doon dellu parce que fa la ñuy amee image yi à temps réel delloo nañu nag est-ce que pour suñu sécurité la bu fekkee loolu la xayrun bu fekkee itam leneen moo si nekk itam euh, euh, du yoon parce que suñu liggéey lañ de mais tant que mu ngi doon si suñu sécurité nekk li nga xamante ne pour aar ñu la rek. Euh, dañuy euh, kontaan mu ngi mel ni rek mu ngi waxtaan ak ñu début bi dëgëroon na wax tuuti mais mu ngi mel ni rek euh, wax ni xaw na neex mu ngi waxtaan ak journaliste yi naan leen dem leen fële. parce que seen sécurité la te seen pour aar leen moo tax parce que seen liggéey ngeen def ñu ko ñu leen di jaajëfal bu baax a baax itam parce que ñoom it lii mooy seen liggéey ñun dañuy def suñu liggéey mais ñoom it aar ñu moom la ñu war a def donc bu ñu nee dem leen rek ñu ngi voilà gis ngeen ne camion bi nga xamante ne jamono ji ñun fu ñu nekkoon fa ñëw. amaana lii moo tax ñu ne ñu nañ fi jóge mais lépp rek Abdou vraiment euh, c'est à saluer maa ngi moom laa doon wax léegi bu gars yi def keroog bi nga xam ne manifesté manifestation yi déclenché na ci affaire euh, Sonko Adji Sarr moom am na xeer bu ñu doon dóor euh, ki journaliste moom moo di ko enveloppe bi dal ko ci ginnaaw kon tey bu ñu dikkee mu ñu ne dem leen ngeen taxaw ne c'est pour votre sécurité ñu wax ko moom laay wax parce que début bi dafa xaw a wax ji dafa xawoon dëgër mais jamono ji nag dafa wax nànk rek ne dem leen parce que seen sécurité la moo tax nag ñu am xel mu daal te xam ne ñoom itam tey jii dinañ def suñu liggéey nu mu waree parce que ñu ngi ñuy jàppale di ñu di ñu di ñu aar di ñu suturaal donc nag nañ nañ sant yàlla bu baax ñun journalistes yi. voilà muy mel ni euh, boo jëmee fi nga xam ne moo di hôpital Fann Euh, grande porte bi nga xam ne moo nekk foofu mu mel ne daal affaire yi ma ngay bëgg a jax foofu ndax euh, boo xoolee ñi nga xam ne euh, seen fourgonnette bi nga xam ne moo nekkoon fii yéen gis jigéen ñi ñuy dawee étudiants yi di daw ngir génn ñii di dugg ngir fekk am ñoo xam ne biir université lañu ñu logé tey ñeneen ñi ngi daw ngir mën a génn jël oto ngir mën a ñibbi seen i kër ndax les cours sont perturbés actuellement amoo foo mën a jàngee tey boo demee ba waroon jàng tey amatoo foo jàngee tey day day dafay waar nit ñi ñi ngi daw di génn ñii ñi ngi daw ngir duggaat seen ay logement boo xoolee fourgonnette de police bi nga xam ni moo nekkoon fii euh, ci euh, devanture euh, université bi ñoom daw nañ dellu ci grand porte bi nga xam ni moo dend ak li nga xam ni moo di hôpital Fann ñu fàttali ne comme yaa ngi ko doon wax sànq mu di hôpital yi nga xam ne ñoo seq université mu di hôpital Abass Ndao ak hôpital bu Fann ñoom dañu am ay malaat yu fa nekk ñoo xam ni dañoo wéradi ñu dugal leen fa lacrymogène yi dafay dem bu dugg foofu tey am na ñoo xam ne bu ñu demee ba euh, mënuñu nokki euh, tey lacrymogène dugg foofu dinañ gën a sonn kon ñu ñuy ñaan rek ñu ñu fexe rek euh, ba ba jàmm dellusiwaat ñoom étudiants yi ak ñoom takk der yi ñu mën a waxtaan bu ñu waxtaanee ñoom ñu jébbal ki nga xam ni moo di moo di préfet de Dakar. voilà ak du ma mel ne ambulance bi sànq maa la ko doon wax am nañu ay jaaykat ñu nekk aux alentours ay euh, nit yi nga xamante ne ce sont des piétons nekk si alentours yi ñoom itam dañoo amoon jafe-jafe nooyi mu mel ne rek euh, ñoom it ambulance bi mu ngi xool du biir université kese mu ngi def euh, ronde ngir xool ñëpp ñi nga xamante ne am nañ jafe-jafe si seen wérgu yaram ngir ñu def ramassage bi yóbbu leen secourir leen parce que ñoom itam loolu mooy seen donc journaliste bi fajkat bi ak ki nga xamante ne tey jii nii moom mooy takk lépp rek ngir ak sàmm doom doomu aadama tey jii moom moo fi nekk donc nag mu pour rappeler ñu ngi fii si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru lu ñu fi tax a teew nag du lenn lu dul euh, projet de loi bi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a teg pour aaye lépp luy manifestation parce que jàpp nañ ne acte terroriste la donc nag moom moo tax tey jii euh, jili yéen a ngi gis euh, étudiants yi nga xamante ne dañoo def seen i short mel ni kuy dem football yi daal da takk seen daal moom dëgër di daw daw yi métti nag vraiment donc nag vous êtes en direct via Sénégal 7 YouTube bi wala Facebook bi ñu jaajëfal nag suñu internet yu abdu yi nga xamante ne ñu ngi ñuy teewlu di ñu poser ay questions ñu neen si mën a andi ay leeral ñu bëri ñu ngi naan nañ dem xool li xew fële ca hôpital yi ba xam ñoom am nañ ci jafe-jafe dinaa fa dem léegi xool ko ah, ji li yéen a ngi di daw di dugg ci biir université bu Ndakaaru dañuy dem seeni logement wala dañuy dem fekk ji ñi nga xamante ne ñoom ñooy xeex ngir jàppale leen xamuñu ci dara Abdou situation métti mun munoo xam sax ana naka ah, la étudiant yi di tegee seen i stratégie parce que nag mong nañ mong boo xamante ne mun nañ def li ñuy def te police du ko mën a gérer. xam nga dafa am ñoo xam ne dañu loger biir université mhm. bu ñu loger biir université ñu am ay courrier ci yeneen école de formation ñoom fii lañ jógee bu ñu wàccee nag il faut ñu dugg ci biir ngir mën a delluwaat ci seen mooy seen i kër il foofu lañ loger ndax boo xoolee université amical yi voilà waaw dañ dañuy ci biir ndax boo xoolee ñu ci bëri étudiants yi ay état bi daf leen di orienté dans d' autres écoles de formation léegi bu leen orienté duñu am fu ñu loger seen amicale ñoo leen di loger biir université léegi ñoom dañuy jógee biir université di jànge ci yeneen école de formation yi mais bu ñu wàccee dañuy bëgg a ñëw ñibbisi dugg seen biir chambre toog wala ñu dem biir restaurant ñu ñu ñu añ moo waral nga gis ful yu bëri mais boo xoolee sous la protection des de de de de force de force de l'ordre ñoom ñoo leen di accompagner ba dugg ci biir euh, ñu ñu duñu bu ñuy dugg. da ngay ni da ngay gis ni force de l'ordre dañuy arrêté seen tir lacrymogène ba ñu dugg ba ba sori ñu doog a continuer ak ñi nga xam ne ñooy wër di jàmmaarloo ak ñoom fii ci université Anta que man ba may génn maa ngi lay wax sànq ni damay génn dañ ma seen ak sama machine euh, laaju ñu ma sa badge dañ ma ne carrément journaliste nga ma ne leen waaw ñu ne ma ñëwal ñu arrêté te dañoo pare woon pour tirer li nga xamante ne mooy lacrymogène yi ñu ne ma Aïcha ñëwal ñoom ñoom ma jàppale ba ma génn xeer yi am na yi nga xamante ne moins cinq rek mu daal ma si lañ si lañ ma accourir pour ma sugg suq ba ma suqee nag après si lañ ma accompagner ma génn ñëw rejoindre fii nga xamante ne mooy euh, si euh, rond point bu université nga xamante ne journaliste yëpp fi lañ nekk waaye nag ñi nga xamante ne ñooy way takk ñu ngi ñuy euh, jàppale di def li nga xam di sàmm li nga xamante ne mooy suñu sécurité ñun journaliste yi. ba tey ñu fàttali leen ñi leen ñu ngi ji Sénégal sur Sénégal 7 direct sur Sénégal 7 depuis ce matin ba léegi ñoom Euh, ñi nga xam ne ñoom lañ déployé sur le terrain mu di ay journalistes ak ay cadreurs même chauffeurs yi itam ñoo ngi fii ci buntu université Anta Diop ngir rek euh, fexe ba lépp loo xam ni am na ci euh, assemblée nationale am fii ci université Cheikh Anta Diop Dakar ngeen mën koo gis ndax am na ñoo xam ne mënuñoo toog seen téléphone mënuñoo toog mënuñoo toog dem seetaani wala ñu toog seen télé dañ koy xool rek ci seen téléphone via YouTube wala Facebook wala Facebook voilà yéen a ngi gis euh, sorte monument de livre boo xam ne moom la ñu def ci biir université boo duggee juste ci grande porte bi ñoom foofu la étudiants yi laqatu euh, nga xam ne bu ñuy sànni xeer bu ñuy sànni lacrymogène du fi leen dal mais dina ñoom dinañ am euh, dinañ am ligne ligne de tir ñoom tam ñun laa ko mën a ñun laa ko mën a nga xam ne ñoo di ñoo di mais jamono ji boo xoolee ci université Anta Diop ci rond bi ñoom way nga xam ne nekk nañ fi arrêté guñ nañ seen tir lacrymogène yi boo xool day mel ni euh, fi mu gën a yëngoo moo di ci grande porte bi nga xam ni moo euh, jëm fële ca hôpital bu bu bu bu Fann mais ñoom jamono ji ñu ngi ne tekk yor seen ay bouclier taxaw di déglu étudiants yi étudiants yi ñoom itam kenn ku ne yaa ngi dem wut sa sa benn dénk wala nga wut sa benn benn benn benn planche wala nga wuti benn contreplaqué ngir rek. protéger wu ko euh, fexe ba xeer yi du la dal wala grenade lacrymogène yi du la dal euh, vraiment daal ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ngi ñu ngi fii di leen digtal li nga xam ni moo fi xew euh, bu ñu sukkandikoo itam ci ak pàttali ñi nga xam ne ñoo di étudiants yi nee nan li ñu dul nangu moo di projet de loi bi nga xam ne nar nañ koo daganal fële nar nañ koo valider fële ci assemblée nationale bu Dakar waaye itam. ak lenn ci li nga xam ni moom la ñuy naqarlu mu di euh, mbirum góor jigéen mi nga xam ni daal mi ngi wéy di lëmbe réew mi mi ngi wéy di wéy di lëmbe li nga xam ni moo di àdduna àdduna wërngal képp ñoom la ñu wax rek moo di euh, fii ñu ci réew mi toll ñoom duñu nangu benn yoon ñu valider fi wala ñu voter fi li nga xam ni moo di euh, li nga xam ni mooy daganal wàllum góor jigéen la ñu bëgg rek moo di ñu crima criminaliser ko ba kenn dootu fi taxaw naan damay damay damay damay góor jigéen laa dama koy manifester donte yi sax kenn ku ne am na am na am na loo xam ni bu la neexee nga def ko sa sa bopp la waaye dañoo nekk ci réewum valeur réew moo xam ni euh, suñu kilifa yi diine dañ fi nekk réew moo xam ni réew moo xam ni itam euh, euh, réew moo xam ni valeur moo ko moo ko moo ko téye voilà léegi kon donc ñoom ñoom étudiants yi loolu la ñuy naxarlu li ñu naqar itam mu di projet de loi bi nga xam ni bëgg nañ koo jàllale bu ñu sukkandikoo ci ñoom étudiants yi la ñu wax moo di dañuy fexe daal ba képp ko xam ne bëgg na fee manifester ñu daal di la koy tere képp xam ne bëgg ngaa wone sa sa sa sa naqar ñu daal la koy tere ba noppi jiiñ la terroriste ndax boo xoolee gis nañ émeute yi fi amoon voilà Abdou mi ngi mel ni rek Déthié Fall mu ngi buntu assemblée nationale di amal foofu li nga xamante ne mooy benn point de presse di expliquer li xew fële ci assemblée nationale donc ñu teew teewlu ko mu mel ni dañoo am problème euh, technique xam naa du ñàkk incha allah ñu ñëwaat si li nga xamante ne moom la Déthié Fall doon amal di expliquer rek li nga xamante ne moom mooy euh, li xew fële si assemblée nationale voilà ñu teewlu. bu euh, Girassi Girassi. Moussa Fam Maba Girassi. parce que man su may nawle mooy député yoo xam ne am na seen liberté ils sont là pour le peuple et ils transcendent ils sont au-dessus donc des partis des questions partisanes et ils se pour ce qui est bon c'est ci pratique du président de la république Macky Sall yi nga xam ni depuis que mu ñëwee ba tey mi ngi koy def. Moustapha Maba Guirassy. instant Déthié Fall moo ah, nekk di wax moo nekk di wax ñu teewlu ko. et quand je pense que ce projet de loi moo risqué d'être la goutte de trop. Parce que l'immobilier, ce n'est pas compliqué. C'est avoir le contrôle sur nos vies. Avoir la possibilité de délivrer des de liberté et des de non-liberté. Parce que li nekk ci ginnaaw projet de loi bi loolu moo jara xam lan la le président Macky bu poser un acte ne te limite pas ci li mu bind ci texte bi xoolal toujours li nekk ci xel bi parce que li nekk ci xel bi après lay jëfee plus que li nga xam ni moo nekk ci texte bi parce que tey bu ñu jëlee tous les dégâts liés au rassemblement tous les dégâts liés aux manifestations jël dégâts yooyu approché ko ak ay actes terroristes war jël condamnation yi nga xam moom la ñu jagleel foofu jagleel que nii noonu cela voudra dire que même ni ngeen taxawee ñii di def seen liggéey convenablement correctement on peut tout de suite dire que rassemblement la introduire leen ay nervi introduire leen ñeneen infiltrer leen mu am ay dégâts collatéraux ñu ni c'est la presse qui est à l'origine de ça identifier ñu fi nekk mën ku nekk jël la arrêté la ñu la tu as été initiateur de cette mobilisation et par conséquent les dégâts qui s'en ont suivis tu en es responsable. pardon parce que amuñu beneen réaction amul benn projet de loi boo xam ne jàll na fi ma dégg kenn koo xam ne am na sañ-sañ porté librement gis-gisam amul kenn koo xam ni il est là pour le peuple sénégalais ils sont tous là ils l'ont dit d'ailleurs de façon très claire nous sommes là pour le président Macky lu mu indi nañ ko voté kon bu boobaa man amatuma euh, duñ suma naataango duñ suma nawle parce que man sumay nawle mooy député yoo xam ne am na seen liberté ils sont là pour le peuple et ils transcendent ils sont au-dessus donc des partis des questions partisanes et ils se battent pour ce qui est bon pour le pays maa ngi voilà loolu di ay euh, kaddu député Moustapha Guirassy Moustapha Guirassy mi ngi doon àddoo nga xam ni moo di université euh, assemblée nationale moom la moo xam ni moo di bu ñu demee ba ci réew moo xam ni ñi nga xam ne ñoo di député yi nga xam ne ñoo fa nekk euh, am complexe voté loi am complexe indi seen réplique ci voi loi boo xam ne ñu ngi koy voté nee na loolu doy na waar loolu trop nee itam nee na nawlawul benn yoon ñi nga xam ne ñoo bokk ñoo nekk ay député nga fare ca nguur gi ndax ñoom nee nañ bu ñu taxawee di voté loi boo xam ne leer leen tey jii Euh, beneen yoon dina xaw a métti ci ñoom vraiment dina dina doy waar loolu di ay kàddu ki nga xam ni moo di euh, le député Moustapha Maba Guirassy ba tey itam euh, ye beneen député itam daal dinañ wax gis ngeen journaliste ñoom itam ñoo ngi utiliser seen ay ay ñoo ngi utiliser seen ay ay ngir rek fexe ba du leen du leen mën a du leen mën a atteindre voilà ñu déglu ñu déglu euh, ñu déglu Déthié Fall itam mu ngi mu ngi mu ngi nii xaaral ñu déglu ko. Euh, Parce que li mu bëgg c'est compliqué c'est avoir la possibilité de délivrer li nekk ci ginnaaw projet de loi bi loolu moo jara xam lan la le président Macky Sall posé un acte ne te limite bind ci texte bi xoolul toujours li nekk ci xel parce que li nekk ci xel bi après lay jëfee plus que nga xam ne moo nekk ci texte bi tous les dégâts liés au ak ay acte terroriste wala jël condamnation yi nga xam ni moom la ñu jagleel foofu jagleel que nit ñooñu cela voudra dire que même ni ngeen taxawee nii di def seen liggéey convenablement correctement on peut tout de suite dire que rassemblement la introduire leen ay nervi introduire leen ñeneen infiltré leen mu am ay dégâts collatéraux ñu ni c'est la presse qui est à l'origine de ça identifié ku ci nekk mën ku nekk dina arrêté la tu as été initiateur de cette mobilisation et par conséquent les dégâts qui s'en ont suivi tu en es responsable de donc délit boobu collé la ko ensuite def la voilà pour fàttali la nag yéen a ngi en direct Sénégal 7 YouTube wala sax ci Facebook bi yéen ñu teewlu Euh, si fàttali ñu ngi fii tam nga xamante ne mooy université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru euh, nekk di leen diktal lépp li nga xamante ne rek xew na fi gisoon nañ temps Sonko bi euh, ni Sénégal set taxawee macha allah di leen jox lépp lu information en temps réel ngeen rafetlu ko dara rëccu leen si woon donc bii itam ñu ngi def la même chose ñun ñëpp yeewu nañ sa fajar ñëw fii si université fi nga xamante itam mooy assemblée nationale nekk di fa di leen wax lépp li ne xew na fa. donc nag sànq gis nañ benn xale bu jigéen bi nga xamante ne étudiant la dafa ñëwoon fii jigéen euh, dafa daanu parce que lacrymogène yi saf na sàpp saf goo xamante ne ñu fi nekk sax dañ ñoo mujj may ab vinaigre parce que am na suñu benn naatongo bu yor vinaigre bu ndaw di ñu ko jox ngir ñu mun a nooyi euh, mun leen a dictal lépp li nga xamante ne rek euh, moo xew fii si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar lu ko waral nag du lenn de projet de loi bi nga xamante ne bëgg nañ ko signer si lu jëm si aaye li nga xamante ne mooy manifestation yeeg lu ñu mel ñu jàpp ne rek ak acte la ñoom nag loolu neex ne duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ba ay yenn ci activistes yi ñu leen nekk di leen euh, jàpp ki nga xamante ne rek mooy Abdou Gueye Xrum Xax euh, moom jàpp nañ ko dem fële si assemblée nationale am na ay journalistes yi nga xamante ne woon nañ fa ñenn ñi ñu leen doon bu xatal ba am ñi nga xamante ne ñoo suñu naataango yu nekk Dakar instant ñu jàpp seen i moto ñoom itam ñu ngi ñaan ñu delloo leen parce que rek seen moyen de trafic ba ngir ñu mën a amal seen liggéey à temps réel donc nag Abdou Gueye Xrum Xax jamono ji euh, nee nañ ko waaye rek identifié dafa nekk fële ca l'hôpital parce que dafa am ay tuccu tuccu si euh, côtelette gauche bi parce que euh, li nga xamante ne mooy takk dari ñoom ñoo nekk euh, doon ko dóor di ko buntu xataam moom ak yeneen ñett ñi nga xamante ne àndoon na ak ñoom donc nag Eh, jamono ji mbir mi métti na boo xoolee ñi nga xamante ne ñoo nekk ci eh, kujje politique gi eh, nekk parti opposition ñoom itam ñu ngi fële ci assemblée nationale lépp li nga xamante ne xew na ci biir parce que ñun journalistes yi amuñu accès ngir dugg ci biir assemblée nationale pour xam li fa am ba pour dëgtal leen ko mais ñoom responsable yi ñoom ñu ngi dugg bu ñu paree nga gis ñuy génne benn par benn ñu expliquer situation bi mu mel mais ñoom jamono ji dañoo mer ba futt parce que ñoom d'accord ñu benn yoon lu ñu mel di am parce que ñun journalistes yi tam am nañ suñu droit ngir euh, dugg ci biir lépp lu fa xew rek ñu mën leen ko digtal waaye ñàkkul gis nga ñi nga xamante ne tableau la ñu yor euh, yéen a ngi koy gis noonu ci image yi à travers Sénégal set ñu ngi gis euh, ab benn étudiant mu ngi yor benn tableau yi nga xamante ne dañ koy jàngee rek mu jël ko teg ko ci kanamam Euh, di joxe ay mot d'ordre rek comme ni ko policiers yi di defee takk der yi di ko def dafa mel ni moom la nekk def gis nga ni muy sànnee ay xeer voilà yéen a ngi gis jeu de pierre yi dafa mel ni day joxe signal la ñu sànni xeer yi waaye rek li nga xamante ni takk yi tam ñoom ñu ngi joxe ay signal euh, ngir rek ñu euh, sànni li nga xamante ne mooy lacrymogène yi donc lii moo am université Cheikh Anta Diop Ndakaaru gis nga oto yi ni ñuy dawee dañuy xël di gaaw di dem balaa ñoo toj li nga xamante ne mooy seen i vitre ak li ni mel. voilà mu ngi nii nag policier bi gis ngeen takk der bi nga xamante ne mu ngi armé wu. voilà jàkkaarloo na ak ki nga xamante ne moo yor table bee di joxe signal si biir université bu Ndakaaru yéen a ngi gis sàcc tiire na yéen a ngi gis lacrymogène bi ni muy euh, wàccee donc mu mel ni ne rek euh, situation vraiment métti na tàng na bu baax fi nga xamante ne mooy université bu Ndakaaru yéen ngi gis beneen takk der bi nga xamante ne mu ngi nii jàkkaarloo ak ñun euh, moom itam mu ngi euh, nekk euh, di armé wu ngir rek defaat beneen tiir voilà si biir université bu Ndakaaru ndax xeer itam mu ngi jóge si biir université bi di génn si li nga xamante ne mooy si tali bu nekk fii si euh, buntu université bu Dakar plus précisément ci rond point bi pour fàttali ne itam am na ay étudiants yoo xamante ne teg nañ leen loxo si côté corniche bi euh, ba euh, yóbbu leen voilà gis ngeen li nga xamante ne mooy tiir yi vraiment mu ngi wéy di dem ci li nga xamante ne mooy fleur. yu nekk ci université Dakar gis nga yéen a ngi dégg bomb bi voilà nee naa la ku ci euh, dëgërul rek euh, sa fit dina rëcc ba nga tiit maa nga daanu étudiant yaa ngi jumelé di yuuxu parce que ñoom li safu leen day tax ñu gën a am force rek ngir gën a xeex yeneen gis jigéen ñi nga benn gis nga ab euh, yeneen gis jigéen bi nga xamante ne mu ngi fee ci côté bi muuru ak kaala bu weex moom itam mu ngi nekk ci biir manifestation jigéen ñi itam ñoom it bàyyiwuñ benn yoon góor ñi parce que ñu ngi leen di jàppale di def li nga xamante ne rek mooy charge de prière de pierre voilà gis ngeen na côté bale itam am na ki nga xamante ne rek benn paa moo ko jàpp ci loxo jàpp jigéen ki di ko dimbali mu mel ni rek moom itam saxaar sek xat gi lacrymogène bi da koo jàpp mënatul nooy parce que ni ma la oh. yéen a ngi dégg li nga xamante ne mooy bomb yi lacrymogène yi euh, étudiants yi bu ñu bu policiers yi tiiree rek ñoom dañuy jumelé ñoom man li ma gën a jaaxal mooy jigéen ñi nga xamante ne ñu ngi si biir ñoom ñooy sol si yooyu ba mu fees dell la xeen ñoo jébbal ko seen i euh, càmmiñ ngir ñu mën a xeex bu baax a baax donc mel ni góor jigéen ñi tam ñoom ñu ngi si xeex mi donc vraiment mu doon situation bi nga xamante ne rek ñëpp ñoom ñu ngi koy ñaalu en tant qu'étudiant parce que nag dañoo bëgg ñu bàyyi leen ak seen démocratie ak seen liberté d'expression comme ñun ñi nga xamante ne ñooy tak euh, ñooy journalistes yi ni ñu koy euh, ñun ñu koy xeexee ngir euh, di wax lépp li nga xamante ne moo xew voilà ñi nga xamante ne ñoo takk de ñoom itam ñu ngi armé wu di defaat yeneen tiir donc situation bi vraiment moo am fii si université Cheikh Anta bu Ndakaaru étudiants yi itam ñu ngi continuer di def ay jeu de pierre mu mel ni rek Euh, tension bi mu ngi gën a monter mu ngi gën di métti voilà mi internet u Sénégal 7 yéen ñu teew teewlu euh, en direct si suñu différentes plateformes mooy su YouTube wala sa si Facebook comme ni ma leen ko waxee Sénégal 7 c'est votre téléphone euh, bi nga xamante ne rek euh, c'est votre télévision en poche bi nga xamante ne rek foo munti dem da ngay ànd ak moom comme ni ngeen ko xamee ñun nag bokkoon nañ si ñu njëkk teew fii si université Cheikh Anta bu Ndakaar di leen dictal lépp lu fi xew depuis ce matin mais nag ñi nga xamante ne mooy taskat xibaar yi ñu ngi gën di gën di euh, teew di gën di ñëw ngir dëgtal leen ñoom itam li nga xamante ne moo fi am ak journaliste yi nag wax dëgg neex yàlla am na fi ñi nga xamante ne sonn nañ yéen a ngi doon dégg sama naataanga boobu di sama càmmiñ euh, Abdou Khadir Mboub moom daa sonn fi mu ne nii dem na wuti ji li mu lekk dem tayala ma micro bi mais nag ak lépp lu ci mën ci am rek dinañ leen ko jox voilà yéen a gis am na suñu naataango yi nga xamante ne ñu ngi avancé woon euh, bu nekk juste rek si trottoiru tali bi mais woy takk deri dañ leen nañ arrière dem taxawee fee si ginnaaw pour suñu sécurité gis ngeen xeer ni muy avancé di ñëw euh, di jëm si su si nga xamante ne mooy euh, woy takk deri donc daal situation vraiment métti na loolu si biir université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru et aux alentours yéen ngi gis way takk deri ni ñuy armé woo noonu xëy yi di ko dal mu ngi armé wu yéen gis tiir nañu tiir bu sori lacrymogène am na ñaari ñu tiirandoo en même temps si biir université Cheikh Anta bu Ndakaaru donc ñeneen ñi am na keneen tamit beneen takk der buy defaat li nga xamante ne mooy gis ngeen nu mu tiiree def armé na ba tiire yéen koy gis noonu oto yaa ngi daw en vitesse bañ lekk ñëw gaañ leen scooter yi ñoom it ñi ko si sol euh, casque daal fexeel ba sol sa casque parce que ñoom ñu ngi daw di bokkatu di làqatu bañ lekk ñu gaañ leen donc métti na métti na loolu taximaan yeeg ñëpp ku ci nekk yaa ngi daw gis nga leen ñi nga xamante ne ñoom itam ñu ngi bëgg di jël taxi di dem di ñibbi ñoom itam dañoo tiit fi mu jamono jii fii daal métti na torop torop torop ba fu métti am mais lépp lu ci mën ci am rek. dañ leen koy digtal mais jamono ji ñu ngi université Cheikh Anta bu Ndakaaru di xaar nag euh, suñu naataango yi nga xamante ne ñoo nekk fële ca assemblée nationale ngir ñu digtal leen rek euh, njiit yi fa nekk ana nan la ñu fas yéene euh, am foofu comme information ñu digtal leen ko fii ci Sénégal set et nulle part ailleurs votre télévision en poche ñu bàyyi leen ngeen xool image voilà yéen a ngi koy dégg sama naataango bi nag dem na def yëfu séeréer ba ñëw ut na lu mu lekk ci biiram <laughs> nee na dafa sonn mais yéen a ngi gis bomb yi nu muy euh, demee ñun ñu sax dañuy tiit wax dëgg neex yàlla rek damay def comme sama naataango bi rek bu affaire yi jaxee rek mu ne man sax damay daal di daw donc ñun dañuy daal di daw rek xam nga dañuy daal di daw rek <laughs> maa fi gis sama naataango. ñun sax dañuy daal di daw. ñun sax dañuy fay far <laughs> daal di daw sax ñun. parce que affaire yi métti na loolu vraiment metti na parce que tamit boo xoolee sànq li nga xamante ne way takk dari def nañ ko fi ñu taxawoon si statue bi Cheikh Anta Diop bi ñu ngi ne dëpp leen ngeen dellu si ginnaaw eh, mu doon rek ah yéen a ngi dégg bomb yi. yéen a ngi koy dégg. ay plateau la ay ay la. ay gâteau la gâteau sur le plat voilà gis nga li ma la doon wax sànq rek yooyu takk der yi. ñoom ñu ngi aar bu baax li nga xamante ne mooy taskatu xibaar yi mooy ñun journaliste yi cadre yi fi nekk di dégtal askan wi. lépp lu xew fii si université Cheikh Anta Diop bu Ndakaar nan nga gisee situation boobu. waaw jot nga euh, situation bu naaj situation boo xamante ne tamit ah <laughs> <laughs> def nañ ci situation bu naaj boo xamante ne nii il faut que ñoom ñoo yor suñu kaaraange ñoo yor suñu sécurité il faut ñu sécurité ñu parce que mooy ci lañuy dox ah, ñu mën a am li nga xamante mooy li wér te wóor il faut ñu am suñu kaaraange tamit ku ñu yor parce que ñu yor ñu kax yor ñu dara ñu mën a protéger xeer ñoom ñoo ñu mën a protéger seen liggéey rafet na ci lool lool ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax voilà ñu euh, ngeen ko gisee loolu moo am ñu demee na voilà nee na nag ñu demee taxawee na le suñu kaaraange la donc ñu ni dañuy euh, accepter rek li nga xamante ne mooy takk der yi lu ñu wax donc ñun dañuy dem dem rek euh, côté bële fas yéene euh, taxaw foofu rekk def suñu liggéey nu mu waxee à vos souhaits takk der mu ngi tichel tichel yu métti sax du si ñàkk dañoo sonn nag ndeysaan ñoom takk der yi vraiment sonn nañ torop comme nu euh, askan wi sonnee ñoom itam lacrymogène mu ngi leen jàpp donte ñoom si leen dëkk tàmm nañ ko waaye ñu ngi ticceel li di di sëqat comme ni nga xamante ne mooy. député ñu ngay dóorante kurpañ foofu ca biir assemblée. <laughs> suñu naataango am na information bu am nga ne laan. seen naa seen naa gars kurpañ borom grand bu bu beige. grand bu bu beige mu ngi kan la nag ñu ngi koy wër. na nga koy wër. ñu gars yi ngi koy wër. waaye daal. Euh, information bi jotee naa ko ci waa Sénégal mhm. te ñoom ña ngay dóorante kurpañ ca biir mhm. foofu xam naa ne doy na waar ndax député yi bu ndee bay dóorante kurpañ ca biir jar naa xoolaat. doy na waar donc naka euh, si Abdou. assemblée nationale jamono ji ña ngi jàmmaarloo. loolu la suñu naataango bi doon expliqué da ngay dóorante ay xeer. ay kurpañ doy na waar doy na waar. borom garam bu bees bi la te ñu ngi wër kan la. borom garam bu bees bi. en tout cas euh, ku ci mel ni Moustapha Mbaba Guirassy ku ci mel ni Déthié Fall moo ngi fa woon ku ci mel ni aussi euh, Cheikh Bamba Dièye yaakaar naa mu ngi fa woon suma juumul ndax gis nañ leen san seen ay réaction mhm. ñoom lañu lañu mettre lu rek mooy Déthié Fall lañu mettre rek mooy leen loi bi ni dafa dafa am ñu mu visé dañuy jàpp ne bi dafa am ñu visé ñoo xam dañ leen a bëgg a rek pour euh, ci élection yi ñu jëm nan loolu nag du samay wax waxi ñoom député yi nga xam ne ñoo fare ci assemblée nationale ñoom nee nañu daal euh, nañu nañu jàppee bi daal nekk loo xam ne doy waar parce que dañuy dikk rek sëgg rek bu ne euh, kii vote pour ñu seen loxo kii vote contre ñu wàcce seen loxo demee ba léegi fi nga xamante assemblée nationale ay député nekk fa di fa jouer di fa mi nga xamante ñoo faral toogal ndaw ñi. non mais xam nga xam nga des fois dafa am benn benn mission boo xam ni ñoom ñenn ci député yi yor nañ ko mais xamuñu dëgg-dëgg daa yop mission bi ñu yor mission bu ñu yor mooy euh, fii xam ni euh, ndawul réew mi seen kàddu réew mi seen kàddu eggul foofu ñoom ñoo ko fay eggale la nga xam ne moo leen naqari ñoom ñu war ko fay eggale ñoom député ñoom ñoo ko fay eggale mais tey ji comme li nga wax sànq. yéen a ngi dégg bomb yi. bu ñu bàyyil wax bomb bi ay lacrymogène la. lacrymogène la voilà ay lacrymogène la ñu. moom mën a wax ay lac la mais. waaw xam bomb la peut-être am na ñu lay seetaan. dina am ci ñoom benn émission bu mu def ci ñoom wala lu mu. Ah, si la mais cest à nu affaire yi di. waaw ne c'est-à-dire boo nee son bi muy am. son bi muy am son bomb la mais lacrymogène la. bu ñu wax bomb. bu ñëwee bomb am na ñoo xamante ne actuellement ñu ngi suivre nit ñi à jàpp ne que ay bomb la ñuy dóor xaa euh, a yéeme ñi nga xam naan man sax damay daal daw ne loolu dee ma jaaxal daw gi dee ma ci voilà euh, voilà jàmbaar jàmbaar dawul dafa wuti doole. Euh, c'est reculé pour mieux sauter loolu la tubaab di wax mais boo gi xoolee ci biir université yéen a yéen a ngi ngi dégg. reculé pour voler. <laughs> voilà yéen a yéen ngi dégg yéen a ngi dégg aussi euh, ñi nga xam ñoo nekk ñoo nekk université étudiants yi dafa am ñoo xam dañuy taxaw ci balcon dañuy euh, pavillon A bi pavillon A bi moo janoo ak li nga xam ni moo di euh, moo di grande porte bu université Anta Diop Dakar porte boo porte boo duggee borom gilet yi moom moom laa expliqué nii mm-hmm. ñoom dañuy taxaw ci kaw di supporter ñi nga xam ñoo nekk ci suuf bu ñooñu sonnee ñi ci dañuy ñëw Euh, waaw waaw day mel ni day mel ni xam nga mënuñ ci mënuñ ci am certitude que ni moom la yor dañuy supposer rek que ni euh, bal blanc bal blanc lay dóor mais nekkuñ loo xam ne xam nañ ko leer nañu naññ supposition la mais ñenn ci ñoom nee nañ bi ñu leen laajee parce que ñun tamit am nañ droit laaj leen ñu ne ñoom ay lacrymogène la ñuy tiiree kon loolu bu ñu kenn bëggee jàll ñoom ñooy arrêté seen lacrymogène yi may ko mu jàll borom ñu gën a jàmmaarloo ndax ñoom bu leen bu yi sànniwu rek duñu mën a duñu duñu riposté duñu leen dóor benn yoon li nga xam ne moo di grenade lacrymogène. ñu ngi armé di euh, defaat yeneen euh, lance de lacrymogène. yéen a ngi gis borom gilet bu orange benn si euh, pavillon à juste rek. taxaw étudiant la moom itam. donc mu mel ni ne rek ñoom ñëpp nag te jigéen ñi. lance pierre ñu ngi naan lance pierre la yor. mooy temps yi nga xamante ne temps xale da ngay jël defal sa lance pierre ak ñaari bant ak benn fil. rek jël sa xeet di ko xëcc ngir mu may la appui ba ba ba ñi mooy waa Palestine moom la ñoom xeexee ak ñi nga xamante mooy américain yi l'ASPER dafa dafa dafa danger. am na ku yor fee benn tàkk së bu jaune étudiant la moom itam si fi nga xamante ne rek mooy fleur fleur yi euh, taxaw si digg rond bi rek taxaw foofu noonu moom ak yeneen étudiant moom donc nag muy ngi mel ni ne rek <laughs> baal naa la instant lacrymogène dafa sax sama baat bi sama put bi mënu ma bu baax donc ñoom itam ñu ngi taxaw yor seen i kaks sol ko mais rek gis nga takk der yi ñoom i sànn nañ foofu li nga xamante ne mooy lacrymogène benn tàkk-tàkk ci biir euh, nataalu Cheikh Anta Diop bi ci suuf maa ngi seen benn tàkk-tàkk noonu. waaw dañoo taal ay pneu foofu depuis si suba ba tey ñu génne ay pneu aux alentours de université Cheikh Anta Diop si biir pneu yu fa nekk yëpp génnee nañ la lépp lu ñu mën a taal. rek ñoom génnee nañ ko te jigéen ñi ñoom ñoo leen koy jàppale ko génnee seen i enfi seen i euh, chambre ngir jox ko seen i góor ñoom itam jàpp nañ ci xeex parce que jigéen bu demee ba dawatul mhm. ragalatul di jàppale ay góor ñuy xeex mhm. di xeex seen ak seen yelleef kon nga xam ne jamono ji kenn ragalatul ndax ndax yeelul kii ni nga xam ne mooy njiitu réew mi xoolaat taxawaayam ci réew mi ndax lii université lañ ko fi nemmeeku jamono yi bari na lool te fii damaa yaakaar ne bërëbu xam-xam la fu ñuy sàkkoo xam-xam la bu demee wax xeer yeeg taalu pënd yeeg yooyu bari fi ngi gis ñi waaw loolu day mel ni dañuy def nii takk der yi ndax euh, boo xoolee keroog ci ci kiiw Sonko yi demoon na ba jël benn bunt def benn barrière waaye li ma doon wax rek mooy bërëb bii dañ ko xamee woon bërëb sàkk ko ay xam-xam bu demee ba xeer yeeg pënd yeeg bant yéeg taal gi bari fi war nañoo xoolaat def taxawaay seetlu jàngataat ko ki nga xam ne moo njiitum réew mi ak ki nga xam ne mooy yor wàllum njàng mu kawe mi nañ ci waxtaanaat ñu xool naka lañ ko mën a lijjantee fële ci porte bi nga xam ne bunt bi nga xam ne moo génnee fan foofu xaw a kii xeer yaa ngay tàng foofu bunt bi nga xam ne moo génnee fan damaa xamul nag euh, euh, ki nga xamante ne yéen nga gis nag ñi nga xamante ne ñooy euh, benn pa mu ngi sol benn yére bu weex tàll macha allah di traversé euh, donc nag euh, moom mu ngi traversé mais xel mi dalul parce que mu ngi dox di gersoo ko xool aux alentours mu mel ne rek bu ñu toogee ba ay kilifa yi toll nii di xool di jàll si yu ni mel di ko xool léegi di te duñ seen xal du dal ñoom it seen i doom yi fiy jàngee daanaka seen i fi dina dina dina métti loolu boo xoolee fële nga xamante ne moo jege loolu hôpital bu Fann foofu tamit tam jàmbaar looyu dafa mel ni gën na faa métti gën na faa tar boo gisee am na mbooloo bu takk bu fa taxaw waaye rek li nga xamante ne mooy xeer yi ñu mu ngi jukkee ko fële si biir université bi di génn si biir waaye nag euh, takk der itam bàyyiwuñ leen benn yoon parce que ñoom itam ñu ngi riposté bu baax a baax a baax gis nga leen ñu ngi gën a avancé parce que ñun sànq bañ duggee si biir amoon euh, amoon nañu occasion dugg ba si biir université bi pour xool situation bi nu mu fa mel mais ñu nekk ci corniche bi ñoom dugg ci nañ gis nga bloc bee nekk fee ci ginnaaw garab gi ñu ngi yuuxu di euh, manifesté wu gis nga xeeri ni ñuy euh, jugee ko fële ci biir université bu Ndakaaru di ñëw euh, gis nga gis nga gis nga borom yére bu orange bi ni muy jëlee élan di sànni xeer yi vraiment ndaw yi ñu ngi gën a avancé di gën a jege ci bu baax woy takk der yi par rapport ak sànq si suba. waaw day mel ni fi ndaw yi danañ gën a yokk. ndax euh, ni ma ko doon waxee rek université dañuy jékki-jékki mel ni dañuy génnandoo waaye fii lee mooy seen fulbee mooy seen bu nu avancé du baax euh, fulbee seen nga ñu ngi avancé. gis nga xeer yaa ngi leen moytu leen. moytu leen caméraman yi leen voilà xeer na di jub si suñ ñun ñi nga xamante ñoo taskatu xibaar yi ndax fii may waxee fii wóoratul wóoratul de ndax gone yi de ut nañ ay ay ay bant ak ay xaw ma nuñ ko mën a tuddee li nga xam ne moom la takk der yor ngeen mën a baare seen bopp noomit nu ngi baare seen bopp ndax lii doy na waar luñ ko mën luñ ci mënti xam daal mooy nanu xool ñi war a waxtaan nan toog ci taabal ji waxtaan ndax loo gis ci waxtaan lay mujjee. waaye li ñu war a waxtaan nan toog ci taabal ji waxtaan seen nga takk der noonu ci bunt bi yéen a ngi gis euh, ab euh, jili yéen a ngi gis fële si buntu université bi jili jili may wañu wan ñu image bi saxaar si gis ngeen nu fa euh, méttee xamuñu ba xam dañ faa sànni lacrymogène wala dañ faa taali pëna xamuñu mais saxaar si bëri na loolu si buntu juste université bu Ndakaar si escalier yi nga xamante ne foofu la ndaw yi di yéegee yéen ngi dégg li nga xamante ne mooy lacrymogène yi ma leen di tooñ naan bi naan buum xam nga moom moo tiisal gaañ ñi parce que ñun sax suñu fit yi dafay dafay dafay dafay dë xoolal xale yi fan yi génnaatee voilà xoolal fan yi génnaatee ñoom dañ li ma ñoom waa dañuy dañuy jëlaat li ko ma gën dinañ ko delloo comme sànq rek waaw euh, maane muy mel ni comme ni nga ko waxee sànq euh, comme ni nga ko waxee sànq ma aw la xam naa ne euh, sonn nga jamono ji ma aw la ma aw la tuuti yéen a ngi koy gis comme sànq ni ñu ko waxee sànq takk yaa ngi arrière. voilà muy muy muy mel ni takk der yi euh, ñu ngi wéy di jàmmaarloo lacrymogène yi daf leen euh, daf leen euh, étudiants yi dañoo jëlaat lacrymogène yi daal di koy sànniwaat ñi nga xam ni ñoo di woy takk der yi nga xam ne ñoo fare fii ci buntu université bi nga xam ne moo janoo ak. rond point bi yéen a ngi dégg lacrymogène yooyu nga xam ni ñoo ngi koy ñoo ngi koy sànni bu ñu ko sànnee rek euh, étudiants yi ñoom dañ koy daal di récupérer waat daal di leen koy euh, daal di leen koy euh, sànniwaat ñoom ñi nga xam ni ñoo di woy takkileer yi yéen a gis day mel ni étudiants yi dañoo gën a yokk seen seen dañoo def renfort ñenn ñi nga xam ne muy mel ni ñoo ñoo doon def cours ñoo mujjee génn am na ñenn ñoo xam ne aussi ñu ngi nii janoo ak ñi ngi taxaw ci pavillon A bi ci ab pavillon A bi lañu lañu la ñu taxaw di supporter ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf Euh, ñi nga xam itam ñooy étudiants yi ñi ngi mel ñi ngi gën yokk seen dispositif ba mel ni xeer yi sax mi ngi ñëw ba traversé euh, deux voies yi nga xam ne moo nekk gis ngeen euh, lacrymogène bi étudiants yi dañ ko jëlaat seen loxo sànniwaat ko ñi nga xam ne ñoo di woy takk der yi vraiment yéen koy gis muy mel ni étudiants yi dañu am ci ay barricades yoo xam ne moom la ñuy làqatu ndax boo xoolee ci biir université boo duggee takk rek ci devanture bi da gis ne am na benn monument bu ñu fa def monument boo xam ne comme livre bu ñu ubbi livre bu ñu tijji la ñoom dañuy bi ginnaaw lii bi daf leen di protéger ba bu ñu sànnee lacrymogène daf leen atteindre ñoom foofu la ñuy làqatu di sànni ay xeer ñi nga xam ne ñoo di fekk day nga mel ni Abdou Diakhaté sax ñoom it ñu ngi laal seen i bagage di dem parce que nag situation bi dafa métti loolu donc nag gis ngeen ñu ngi avancé di gën a affronté bu baax li nga xamante ne mooy takk der yi Abdou métti na ba ñu nee ba jaaykat sax ñoom itam ñuy avancer di di di di di di di laal li nga xamante ne moom lañ seen mooy seen jaay donc économie Sénégal vraiment mi ngi gën a wàcc. alors euh, gis ngeen sànq am na benn ay étudiants groupe étudiants yu génn ci euh, euh, porte bi nga xam ni moo di couloir de la couloir de la mort ñoom ñu ngi dikk du ñuy interpeller naan ñi nga xam ni ñoo benn policier boo xam ne moo nekk ci bunt bi am na benn arme bu mu yor lan la loolu la ñuy laaj ñun nag xamuñu ko. mais euh, image yaa ngi nii bu ñu boo leen xoolee xaj na amuñoo xam dinañu tane mais interpellation la boo xam ne étudiant ñoo ñu ko def ñun nag euh, amuñu ci benn certitude mënuñoo firnde ne lii la wala léeg la mais interpellation la boo xam ne def nañu ko xamuñu ci dara mais luñ ci mën a wax daal mu di euh, muy mel ni am bu fi am calme bu bu bu bu bu vraiment boo xam ne xam na ni man peut-être mën naa am du yàgg ndax étudiants yi ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi rassemblé boo xoolee ci biir côté pavillon A bi dem ci fi nga xam ne moo di monument Balla Gaye bi nga xam ne moom lañ defal Balla grande porte bi foofu Balla Gaye étudiant bi nga xam ni euh, moom moo ñàkkoon bakkanam ci yenn ay ci ay manifestation moom la ñu defal monument fële ci nga xam ni moo di côté euh, euh, grande porte bi nga xam ni moo dend ak INDSS dend aussi ak hôpital bu Fann ñoom ña nga fa def seen regroupement xam naa dañuy jéem a xalaat naka la ñuy def pour noppaleeku wala naka la ñuy def pour trouver waat beneen solution pour amaat beneen plan d'attaque mais amuñ ci benn cert certitude

yëpp ci euh, ci ci couloir bi nga xam ni moo jëm ci euh, ci rond bi nga xam ni mooy rond point bu université Cheikh Anta Diop fi nga xam ni moo abrité euh, li nga xam ni moo di monument bu Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop monument boobu aussi maa ngi koy fàttaliku sànq man li ma jox moo di la paix li ma jox moo di bàyyi leen jàmmaarloo ndax tàllal loxoom la def comme si kuy kuy wax naan arrêté leen stop stop. à la violence loolu lay mel ni moom lay nuru mais étudiants ñoom itam ñu ngi ñu ngi wéy di di di jàmmaar loolu di sànni seen ay xeer kenn mënu leen a régulariser ñoom rek ci seen biir ñoo mën a taxaw waxtaan seen biir arrêté xeer yi ñoom itam policiers yi ñoom itam mën a dem euh, euh, euh, ci seen retranchement yi toogaat dallu ba ci ba ci kanam sànq ñoo ngi koy wax suñu benn naataango mi ngi ñuy xamal ni fële ca nga xam ni foofu la ñu nar a voté. yéen a ngi dégg li nga xamante ne rek moom. voilà comme ni ko suñu naataango di woowee plateau comme lacrymogène yi vraiment ñu ngi def trois tirs en même temps. donc bruit bi dafay fort loolu day métti ba ñun ñii sax ñun en tant que euh, par citoyen lambda dañuy tiit sa fit day day dem donc nag ñu ngi ñu xamal ni aussi euh, euh, taskatu xibaar yi am nañu accès fële ci assemblée nationale jamono ji am na suñu naataangoo yi nga xamante ne ñu ngi fa di ñu leen di digtal rek lépp li nga xamante rek moo xew foofu noonu ci vote projet de loi bi nga xamante ne ñu ngi ko bëgg a tëral fii ci Sénégal. ñu fàttali itam ni projet de loi boobu. am na ñenn ci ñi nga xam ne ñoo faral ci ku jëg politique yi mhm. di ay euh, ndaw yi réew mi ñu mën leen a tuddee ay député ñoom d'accord nu ci boobu boobule loi mhm. ndax boo xoolee ku ci mel ni euh, Déthié Fall moom tamit àdduna yéen a yàbb ji ku ci mel ni Moustapha Mamba Guirassy moom itamit yéen a yàbb ji ki nga xam ni Cheikh Bamba Dièye yéen yàbb ji ki nga xam ni moo di l'ex premier ministre di euh, euh, Abdoul Mbaye yëkkati na ay kàddu itam jëmale ko ci wax joojee Déthié Fall tam yëkkati ñoom daal la ñu wax mooy loi bi dafa am lu mu visé loi bi dafa am ñu mu visé loi bi dafa am lu tax ñu teg ko fi mu di képp koo xam ne daal jàpp nga ni da nga manifester mën lañ laa jiin terrorisme te terrorisme nekk na loo xam ni Euh, criminel lañ koy def mu ne réclusion criminelle à perpétuité loolu la ñu wax ni moom la ñu daan képp koo xam ne daal euh, jàpp nañ ni euh, terrorisme lan lay lan lay jiñ loolu la nga xam ne projet de loi boo xam ne ñu nga xam ñu ngi koy bëgg a voté fële ca ca buntu ca pencu ndaw réew mi waraloon ñenn ci suba ay boori huit heures bi juróom-ñetti wax waxtu tegalee ay simili yu bëri ñun ñenn ci suñu ay nattaangoo demoon nañ ñu fa demee la leen xamal moo di amuleen leen droit am accès ci biir assemblée nationale loolu itam ñenn ci ñun suñu ay ay ay nattaango daal di koy naqarul euh, wane seen am ak naqar ci li nga xam ne génn lañ ko ndax ñoom seen seen seen droit ak seen liggéey moo leen may fépp boo xam ne war nañ faa teewal askan wi ñu teew fa fépp boo xam ne ña ngi fay décider askan wi ñoom ñu teew fa ngir ñi nga xam ne amuñu droit wala amuñu accès ba nga xam ne moo di assemblée national ñu man leen a won euh, en image et en son la nga xam ne moo moo xew fële ca ca ca assemblée nationale mais ñu itam am nañ droit itam bëgg bëgg a dugg foofu ndax am na ci yenn yoo xam ne mu di ay loi yoo xam ne dañ ko bëgg a def à huis loolu duñ ko nangu duñ ko nangu ci ci ci ci ci réew moo xam ne vraiment réewum démocratie loolu nag du sama ay wax ndax wax ji ma fi wax mooy wax woo xam ne askan wi ñoo ko wax askan wi ñoo ko naqarlu askan wi ñoo ñoo kenn ne lii kat ñu bëgg a jàll duñ ko jàllale donte sax am na ci ñoo xam ne xamaguñ xamaguñ vraiment euh, ban issue la loi bi nga xam ne moom moom la am. voilà mu mel ne euh, ñu ngi euh, jox comme information que Moustapha Niass moom mu ngi soog a teew fële ci assemblée nationale am na suñu yenn naataango ne ñoom am nañ accès ci biir ñu ngi xamal ne ñoom ñu a xuloo ak a ñaawoo ay kàddu yu ñaaw ci biir assemblée nationale nag donc c'est normal parce que loolu wow buñ buñ ko nemmeekoo foofu ñu bett parce que boo xoolee ay nit ñu jàmbaarloo te d'accorduñ ci benn mbir foo jaar jàppante xiiroo ngaayoo dina am waaye nag ñoo tooxaw fee suñu bi nga xamante ne moom itam euh, taskatu xibaar la ñu bàyyi ko rek moom itam mu commenté li xamante ne mooy situation bu xew fii si université Cheikh Anta Diop bu ak fële fi nga xamante ne mooy assemblée nationale. waaw maa leen di gërëm bu ne euh, euh, yegg si fële ci assemblée nationale bu ñu yegg seen nag député Mbéri jàppante nañ fa ba daal amante ay coups yoo xam ne daal dina fa am ba jàpp nañ ne kii euh, ñu ngi ko dugal ci benn chambre foofu policier également gendarmerie dañ fa taxaw mais tey ñu gisee

waaw on parce que tey am na recul démocratique bu bu énorme boo xam ne am na ci Sénégal parce que kii di le président Macky Sall Abdoulaye bàyyeeku woon lii donc tey bu ñu demee ba toll ci vingt unième siècle toll également ci xam ne peut-être dañ waroon gën a li nga xam ne moo di les acquis démocratiques xam ne donc je pense que tey loolu dañ ko waroon gën a dañ ko waroon gën a mais je pense que tey bu ñu demee ba toll fii gis loo xam ne pense que là dafa nekk loo xam ne il faudrait que ñu war a wax wax ñu war a jox également jox que xam ne ñu koy dund foofu noonu dootuñu ko dundati et gis université aussi je pense que université moom mais étudiants yi ay mag lañ dañu ñoom ñoo war a yore réew mi démb suba lan moo tax ñuy def nii mais kañ lañ kañ la ñuy avancé kañ la ñuy mel ni France bi ñu bëgg bi ñuy topp chaque jour ah ñu topp seen ginnaaw chaque kañ leen kañ leen ñu kii nii mais am na beneen façon bu ñu mën a bu ñu mën a manifester bu dul yàq nii ñuy defar rek ñu yàq ñuy defar rek ñu yàq kañ la ñuy avancer nañ mais nañu bàyyi yii ñu manifester beneen façon bañ a yàq bañ a rey kenn bañ a gaañ kenn bañ a yàqal kenn noonu la ñu waroon def vraiment nañ avancé ñoo tam ay ay kii la ñu ay citoyen la ñoo xam ñoo war a yor réew mi suba nañu nañu nañu góorgóorlu waaye nañu vraiment ci ñun ci ñoom la ñu yaakaar waaw asalaamaaleykum loolu di cri de cœur suñu benn suñu benn yaay mu romboon fii ci université Cheikh Anta Diop de Dakar moom la muy sàkku rek ci étudiants yi mooy ñu fexe ba ànd ak dal ak tey ba li nga xam ne moom la ñu lijjanti ñu lijjanti ko ci lijjanti ko ci jàmm ak salaam ndax ñoom la yaakaar ñoom ñooy nekk ndaw yi réew mi ëllëg ñoom ñooy ñoo war a jiite réew loolu di ay kàddu yoo xam ni suñu benn yaay fi jaar sànq yëkkati ko nga continuer rek ci li nga xam ni moo xam ci moo xew ci euh, assemblée nationale ndax su ma sukkandikoo ci sànq li nga wax mm-hmm. muy mel ni euh, ki nga xam ne moo di euh, Ousmane Sonko mhm. euh, di njiital Pastef mhm. moom itam ma nga fa woon ba am na jàmmaarloo yu amoon seen diggante ñoom biir euh, ñoom seen biir moom Mbéri Sylla moom nag mhm. ah, mu mel ni da nga ni dañoo jël Mbéri Sylla daal di koy dugal rawale ko ci benn benn chambre ah. Ah, tey yaa ngi wax ne aussi assemblée nationale ki nga xam ne mooy président assemblée nationale di Moustapha Niass moom mi ngi doog a ñëw ah voilà li nga wax dafa am solo loolu peut-être jàngat bi ñu ci mën a def jàngat bu xaw a la rek tout simplement

élection amicale yi donc benn fac droit boo xam ne ñàkk nañu élection yi dal di yàq li nga xam ne moo di self ak yeneen i restaurant ak yeneen i mel donc mu nekk bërëb boo xam ne à chaque fois dañu fi gis li ni mel donc je pense que tey nag ñi nga xam ne moo di les autorités compétentes dañu war a jël des décisions fermes que Maguette Sène moo nekk le recteur du COUD na na euh, euh, éclairer les sur ce qui se passe actuellement fii ci ci biir reste yoo alors euh, ñoo ngi gis sànq euh, yenn ci ay étudiants yor drapeau national di symboliser vraiment réewum Sénégal euh, di ko di ko tàllal am na ñenn ñoo xam ne sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi woote à la non violence am na ñenn ci yow ñoom aussi parce que ñoom ñëpp mënuñu am conviction ñoom ñëpp mënuñu bokk conviction ñoom ñëpp mënuñu bokk lu ñu bëgg tey na ci ñenn ñoo xam ngi ñi ngi Euh, fexe ba euh, vraiment euh, jàmm ñëwaat yéen a ngi gis policiers yi ñoom itam ñu ngi continuer di di dóor seen ay grenade lacrymogène ngir disperser foule étudiante yi nga yi nga xam ni ñoo nekk ci biir yi jël ay xeer di ko di ko di ko di ko di ko dóor yi boo xoolee fii ci avenue bi da ngay gis ne xeer yi dafa bëri dafa bëri yéen a ngi gis ba xool fu ne xeer ngay gis wala nga gis grenade grenade lacrymogène mhm. alors loolu loolu dafa interpeller état bi loolu dafa interpeller ndax tey boo demee ba sa askan tey jàpp ni euh, lenn li daal war nañ koo tegaat ñu xool ko ci table euh, moo gën forcing loolu du loolu nga xam ne moom la askan wi di naqarlu euh, ñenn ci ñoom daal vraiment jàpp nañu bu ñu ko tegoon sur la table ñëpp toog Sénégal yi toog ñu xool la ci gën ñu jël ko def ko yaakaar naa dina indi beneen melokaan dina indi beneen Sénégal bu neex ndax Sénégal bi nga xam moom la xam mooy pays de la teranga ndax ku fi na ci pays yoo xam ni moo a stable ay zeng lañ yor Abdou Khadre jëlee ko rek mu mel ni zeng yooyu mooy chantier yi nga xamante ni ñu ngi koy amal si biir université bu Ndakaaru seen zeng yooyu lañ jël gis nga ak ay euh, bant di ko ay contreplaqué di ko taal zeng baa ngi ne ngeen di gis euh, ji bu fekkee mën nga ñoo may image bi rek en direct yéen koy gis ki sol ki nga xamante ne nag moo sol gilet bu orange bi moo ko yor jamono jii di ko baare boppam comme ki nga xamante ne rek moo yoroon li nga xamante ne mooy tableau bi di ko baare boppam comme policier yeeg takk der ñoom ni ñuy aare seen bopp rek si li nga xamante ne mooy xeeruñ leen ni sànni xam nga li day wane que étudiants yi ñoom ils maîtrisent bien li nga xam ne moo di seen terrain donc tey boo gisee ñoom dañuy des euh, yoo xam ne pour se faire défendre et tout mais quand même li may wax rek mooy état bi il faut savoir sanctionner te je pense que tey fekkoon ne état bi euh, sanctionné na en temps réel je pense que li ñu dootuñu ko gisati fii la Cheikh Anta Diop gisoon nañu mouvement yi fi amoon ci 8 euh, mars ak yeneen affaire Sonko Adji Sarr lañ génne woon yàq nga xam ne moo di policier tey a jël des décisions fermes yoo xam ne di nga xam ne peut-être c'est des coupables yoo xam ne à chaque fois ñoo ci nekk te lépp lu ko indi c'est dans cadre de la politique je pense que war nañ mën a moytu politique tey nag bu ñu demee Sénégal am ministre de l'enseignement supérieur boo xam ne bi def discours ay fautes lay commencé donc je pense que peut-être li ñu gis ni c'est trop normal ci ak Sénégal bu ñu nekk effectivement effectivement mu nekk loo xam ne c'est déplorable mais tey dama jàpp ni man mën mm-hmm. euh, woote la mën nañu def discours boo xam ni euh, dina yee sénégalais yi mën nañu def discours boo xam ni amaana du inciter nit ñi ñu jàmmaarloo ak force de l'ordre yi ndax ñoom li ñu fi nekkee mooy fexe ba euh, aar suñu kaaraange fexe ba euh, vraiment waxtaan ak ak ak askan wi fexe ba sécuriser leen loolu mooy seen teewaay fii mais tey bu ñu demee ba tey ñi nga xam ni moom la suñu yaay boo ji jaar jaar cinq wax mu ne ñi nga xam ne ñoom la ñu yaakaar ñu nekk war a nekk ëllëg ndaw yi réew ñi voilà yéen gis drapeau Sénégal étudiants yi mm-hmm. ñoom ñi ngi Euh, drapo Sénégal ngir rek euh, gis nga leur auto également maa ngi gis que mu ngi de pas à pas ça tout simplement que ñoom dañu bëgg a euh, une bonne fois pour toute li nga xam ne moo di situation yi mais quand même peut dire que étudiants yi tey xaw nañu sori un peu ak li nga xam ne moo di euh, policiers yi mais quand jàppale ne ñoom ñu ngi ci porte université amuñ droit dugg li nga xam ne moo di franchir euh, porte université peut être ñoom fële seen droit ya mais quand même on sent yi état bi su ko defoon li ñëpp dañu ko nekk di ko dund à chaque fois mais quand à chaque fois c'est toujours malheureux foofu foofu dama am dafa am loo xam ne bëggoon naa ko mhm. mu dee tey bu fekkente ni bi nga xam ne moom lañ bëgg jàllale mhm. ñu ne képp koo xam ne moom manifesté a euh, euh, mhm. euh, ci manifestation mu ne dafa am ay terroristes ci bokk mais tey bu fekkee réew réew ku manifester nga ni ko nga nga vraiment day nekk lu doy waar day est-ce loolu di inciter à ñi nga xam ne ñoo nekk ay investisseurs étrangers war ñëw fii nii euh, investir ci réewum Sénégal du ñu daw ndax buñ ku ku jóg manifester ñu ne yow terroriste nga ku jóg wax sa naqar ñooy terroriste nga ndax loolu du dàq ñi nga xam ne ñoo naroon ñëw pour investir biir Sénégal ndax Sénégal bokk na ci pays yi nga xam ne moo gën a stable ci Afrique de jihadiste yaa nga fa boo xoolee Nigéria nga xool nga xool yenn dëkk yi nga xam ne ñoo wër Sénégal yooyu yëpp. ay bokkaraam ce sont des pays yoo xam ne. Mm-hmm. boo xam ne boo xam ne euh, pays bu jàmm la boo xam ne képp ku jug da nga naan Sénégal réewum teranga la. Mm-hmm. da nga naan Sénégal de bu ñu fa demee amaana euh, jàmmaarloo dafa am Sénégal rare euh, il est rare na ci rare pays yi nga xam ne. dafa mel ni renfort la jili ah dafa mel ni renfort la. dafa mel ni renfort la gars yi indi noonu. mais quand mën nañu wax ne Euh, jot nañu maîtriser un li nga xam ne xew na peut-être quelques étudiants rek ñooy génn ak euh, tee li nga xam ne moo di drapeau Sénégal yi mais xam nga li nga wax dafa am solo euh, quand Antoine Diome quand Antoine Félix Diome dal di tey bu ñu toogee ne am na des forces occultes yoo xam ne dugg nañ ci réew mi quand même on peut dire tey déglu naa ko mel ni le député Abdou Mbow di xamale que ne loi bi nga xam ne ñu ngi koy voté à l'Assemblée nationale

je pense que yëpp c'est des termes yoo xam ne war nañ ko mën a. xam xam nga ñoom xam nga ñoom man li may li may faral wax rek. ñenn ñoo xam ne aussi ñu ngi nii janoo ak ñu ngi taxaw ci euh, pavillon A bi ci ab pavillon lañu taxaw di supporter ñi nga xam ne ñoo nekk ci suuf euh, ñi nga xam itam ñoo étudiants yi ñu ngi mel ñu ngi gën a yokk seen dispositif ba mel ni xeer yi sax mi ngi ñëw ba traversé euh, deux voies yi nga xam ne moo nekk gis ngeen lacrymogène bi étudiants yi dañ ko jaar seen loxo sànniwaat ko ñi nga xam ne ñoo di woy takk der yi vraiment yéen koy gis muy mel ni étudiants yi dañu am ci ay barricades yoo xam ne moom la ñuy laqatu ndax boo xoolee ci biir université boo duggee tak rek ci euh, devanture bi da ngay gis ne am na benn monument bu ñu fete monument boo xam ne comme livre bu ñu ubbi livre bu ñu tijji la ñoom dañuy taxaw ci ginnaaw livre bi de que ginnaaw ginnaaw livre bi ginnaaw livre leen di protéger ba bu ñu sànnee lacrymogène daf leen atteindre ñoom foofu la ñuy làqatu di sànni ay xeer ñi nga xam ne ñoo di ñoo tekk day nga mel ni Abdou Diack yi sax ñoom ñu ngi lal seen i bagage dem euh, parce que nag euh, situation bi dafa métti loolu donc nag gis ngeen ñu ngi avancé di gën a affronter bu baax li nga xamante ne mooy euh, takk der yi ak du métti na ba ñu nee ba jaaykat yi sax ñoom itam ñuy avancé di di di di di di di lal li nga xamante ne moom lañ seen mooy seen jaay doon euh, économie Sénégal vraiment mu ngi gën a wàcc. alors euh, gis ngeen sànq am na benn ay étudiants groupe étudiants yu génn ci euh, euh, porte bi nga xam ne moo di couloir de la couloir de la mort ñoom ñi ngi dikk duñu ñuy naan ñi nga xam ni ñoo benn policier boo xam ne moo nekk ci bunt bi am na benn arme bu mu yor lan la loolu la ñuy laaj ñun nag xamuñu ko mais image yaa ngi nii bu boo leen xoolee xaj na amuñoo xam